السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته وكل من والاه إلى يوم أن نلقى فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقل رب ذني علما نافعا مباركا بلغي منك القرآن الكريم بسورة فصلة رب تبارك وتعالى وخلق إن الذين كفروا بالذكر الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ومن يقول تبارك وتعالى téere bii nga xamante ne fu ko ubbee muy ni ubbi téere la dafa ne la rey ba amul loo ci mën a contexte am kon yàlla dafa wóolu lii mu wàccee لأعلمه بأيديه والملائكة يشهدون yàlla nee na ci sama xam-xam laa ko tibbee wàcce leen te nee na malaayka yi xam nañu li may wax kon téeréem bi yaa ngi dégg kon borom bi tabaraka wa taala téeréem bii koo fonk moom borom bi tabaraka wa kon mu mel ni moom borom bi tabaraka wa taala dafa wóolu lii mu wàcc wàcce lu mooy alquran mu ne anzalahu bi ilmi mu ngi ko tibbee ci xam-xamam teg ko ci seen kanam mu ne wal malaayikatu yashhadun te malaayika yi xam nañ bul fàtte ne malaayika yi bokk nañu ci bindaafoon yi nga xamante ne ñoo gën a ci li yàlla bi bokk na ci moo tax mu ne shahida allahu annahu laa ilaha illa huwa wal malaayikatu ñoo tegu ci kaw yàlla war wa ulul ilmi borom xam-xam yi doon ci tegu xayma bi def kon téere bi dafa nekk téere boo xamante ne lépp lu ñu soxla maa faral naa fi kitaab min shay lépp lu ñu soxla dañ ko ci fekk moo tax dem ñu lay wax ne inna alladi ahyaaha la muhyil mawta gis nga alquran buy jëfandikoo baatu almayitu te bokkul nag almayitu wal mayitu ñoom ñaar bokkul almayitu wal mayitu ñaar duñ benn bu lay ne almayitu ci alquran li ci gën a bëri mooy ñàkk a xam aljahl bu dee dund lan la ciy nam xam-xam ba tax mu ne aw man kaana baaxee na ay aw man kaana jaahila fa allam na fa jaalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas parce que firiwul ne nit ki dafa dee ma dundalaat ko muy dox ak ay bëtam boo ko firee noonu rek sa dégg dafa gàtt aw man kaana mayitan dee fa ahyaynahu ma dundal ko ci kanamu jumaa ji ci kanamu ñëpp naa lahu nuuran yamshi bihi fi naas ma xamal ko dundal ko kon yàlla dafay considérer ki xamul alquran mu dee moo tax boo demee ci buweetul muslimina mu ne fa kabir alayhi arbaa mooy ma faatu koo xamante ne xamul dara ci diine nee na faatu na ba pare kabar leen ko dafay dund rek waaye dañ koo suul ci jëmm bi maanaam mayitun yam ci bi bi maanaam yaram bi moom nekk bàmmeelam buy doxal moom bu jàngul diine bu xamul diine waaye sàmm maanaam wax ji ko buuri xàkk daal mun mu ne boromam balaa mooy dugg ci bàmmeel moom ci boppam moom mooy moom moo tax alquran mu ne li yundira man kaana xayyan li yundira man ki xam kon pour woon la ne xam moom la borom bi tabaraka wa di considéré kuy dund waaye ku xamul daf lay considéré alayhi salaatu wasalaam wax ci xadis masalu alladi yadkuru llaha walladi laa ka masali lxayi wal mayit nee na misaalu kii jàng alquran yadkuru llah parce que alquran la ñuy gis nga di koy jàng mu doon zikr kon masalu alladi yadkuru llah misaalu kii jàng alquran walladi laa ak ki ko dul jàng ka masalil xayi dafa mel ni ki والميت كمثل dafa mel ni ku dund wal mayit ak ki dee noonu nga leen di misaal kon pour woon la ne xam alquran bii nii moo tax yàlla bind parce que boo gisee ñu ne dund yàlla di koy wax ci alquran alxayu li yaxlika man xalaka an bayinatin wa yaxya man xaya an bayinatin xayaatu boobu noonu nga xamante ne moom la ñuy def fii ci kaw suuf la koy matal moom mooy la mooy nga xam alquran karim kon il faut mu góorgóorlu ci alquran imam Cissé yal nañ ko yàlla fayal bu waxoon ko mu ne nit ñi ni ñu ragalee ñàkk bu ñu ragalee woon noonu ñàkk xam dina doo ko gis jaay kon nit ñi dañu war a góorgóorlu ci xam seen diine xam alquranul karim mu am benn boroom xam-xam bu koy joxe misaal alaaji ali alaaji Moussa yàlla ko yàlla yàlla ko yàlla yërëm yóbbu leen mu ne ku ñu joxoon tey jii Congo Casamance ñu jox la lettre bi ne gendarme ndaw buur moo la ko yónnee waxaatul buur bi nag mu ne buur nag yónnee la lettre mu ne balaa ngay tëdd ci kaw la da nga xam lettre bi ni ci nekk li mu làmb mu ne yàlla nag am ni mu toll yépp ak bataaxal te mooy alquraanul karim tegal la ko nga fanaanoo te xamoo lim lay wax moo tax li ñu war a njëkk a def ci kaw suuf gannaaw ba ñu yégee ne ñu ngay dund mooy jàng alquran moo tax alayhi salaatu wasalaam xiirtal ñu ni xale yi nañ leen jànguloo alquran parce que ka lay wax ne nañ julli ci juróom-ñaari at kooku commencé na mu ngay fer i jikkañ ngay jàng bi mokkal saare jàpp kon yàlla def ñu woo ci ñu jàng alquran ñu xam ko suñu mboolem dund ba mu jeex ma daaru ala ala ala ala kitab parce que moom moo représenté boo xam ne tabaraka wa comme nag jàkkaarloo ak moom kàddoom la mën a gis kàddoom la mën a topp kàddoom la ñu war a mën a dégg moo tax mu tekku ne inna alladina yulhiduuna fi ayatina kalimatu lahd ci luxatan moom mooy romb-romb séeréer di ko tuddee aseeg xaw ma ni ko wolof di tuddee maanaam lii nga xam ne lii nga romb ko nii anga koy gis waaye nga romb ko nii jàtt loolu lañ tuddee ilhaat moo tax boo demee ñu ñu koy suul mooy laaj bi dañuy gas bi mu yegg ci biir ñu gasaat ci wet bi ñu tuddee ko laaj xanaa dañ ko jàtt pax bi kon kalimatu ngeen xat doon lay firi mooy ne yow yàlla bind la ne siraatal mustaqim nga jaat te siraatal mustaqim bi mooy lan mooy istiqaam bi mu tudd ci gannaaw mooy jàng alquran al parce que fekk jànguloo xamuloo ko yaa ngi bàyyi yoon kon yulhiduuna ba kalimatu ilhaad mooy ki ñu tuddee atee euh, mooy ku gëmul dara gëmul yàlla mooy noonu la ñu tuddee ku gëmul dara te pourtant amul si nit a lay wax ne gëw ma dara te pourtant gëm na xar ba foofee wala gëw ma dara te pourtant gëm na jabaram wala jëkkëram nit ki yàlla bu gëmul loolu yëpp dana gëm boppam te baat boobu sa bopp nit warul gëm boppam yàlla la war a gëm erreur la ci làkk wolof ñu di koy gëm sa bopp nit da ngay bopp te nit nit dafay gëm yàlla gëm sa bopp lu mu lu mu la yokk looy gëmee sa bopp loo mën loo xam moo tax yàlla la ñuy gëm waaye nit du gëm parce que boo gëmee sa bopp rek rëy dugg na mooy li nga xalaat mooy li wér li nga wax noonu la loo def noonu la te loolu da ngay dugg ci ay jàmbur mën a indi nafsi boo gëmee sa bopp moom mooy yow loo wax noonu la lu keneen wax du noonu yaa ñëpp parce que sa alal moo gën ñëpp yaa ko bële ñëpp parce que sa alal yaa ko bële ñëpp moo tax jëm sa bopp baaxul jëm yàlla mooy kii baax kon kalimatu ilhad bi nga xamantene moy mooy firi atee mu ngi jogi fi moom la yàlla def moy ko xamantene gëmul yàlla maanaam aseeka seeka roxo yàlla bi maanaam dafa jatt yàlla baye ko fi dem ci leneen baye tere yàlla bi dem wuti leneen yulhiduuna fi ayat mu ne ñooñu la yaxfawna alaynaa duñ ma rëcc ci bàmmeel duñ ma fi ci aduna duñ ma rëcc parce que dee il faut mu dab nit man nga wax ne man damay daw yàlla ñi ñii daw jàng alxuraan ñii daw jàng alxuraan nga xamante ne bëgguñ koo jàng bëgguñ jàngloo seen doom alxuraan lu mu yàgg yàgg yàlla boobu noonu ñuy daw di daw kàddoom danañ mas a dajeeg de ñu jàkkaarloog yàlla laa yaa xaw naa ne il faut que ñu dee a te li ci gën a yéeme mooy ki gën a mën a euh, bañ jàng alxuraan bu demee ba faatu mu ne nañ ko jàngal kaar gis nga mooy kat ñu jàng ay kaar ci réew léegi lan moo tax ba mu faatu tegal ko musique am kon pour wala ne ñoom xam nañu ne ñu nekk du dégg kon alquran muy dégg ko ba ngay judd moo la ko imaam bi ba ngay faatu bi mooy taxawal jàng alquran kon téere boobu war bi nga xamante ne moo lay téere téere bi nga xamante ko war moo tax mu ne laa yaxfaw na alayna ñu ma réer ci biir bàmmeel nga xamante ne ñoom dañu gëm ni ate te nit bu xasee ba faatu maa yuhlikunaa illaa dahr namuutu wa nahyaa ñun dañuy dund rek faatu waaye amatul dekkiwaat yàlla nee nag duñ ma réer ci biir fu ñu jaar ma génnewaat leen te pour nga xam ne yàlla laa yàlla dara du ko réer boo jëlee pepp dugub di bees yi tey nga foraatu foraatu bi foog ne jeexal na ko bu ñu demee benn wet bi dugub asamaan taw la nga fa bàyyoon dana sax yow xàmmeetuloo fan nga doon béy seen dugub bi xamuloo la nga fa bàyyi gisoo dara waaye yàlla ci boppam nag laay déglu tawee rek mu génnee nga xam ne fii dugub desoon na fi ne nit mënta leen yàlla am nuñ ko manti tasaare yi itam ci bàmmeel maanaam jën yi lekk ko wala yu mel noonu bu tax buur ba ba nga xamante ne beew na di def lu ko neex xadis yonente bi sallallahu alayhi wa dama dem ba dara desul lu dul mu faatu mu woo njabootam ne leen nag bu maa bëggumaa dajeeg yàlla bu maa laa doonoon ci yéen ko kilifa bu baax bu ñu yërëm mu ma faatoo ngeen defal mooy nangeen ngeen ma làkk dama doon doomu taal ngeen yóbbu ma ci diggi géej bàyyi ba muy ngelaw ngeen sànni ko ci jaw nga xamante ne yàlla du ma mën a dajale yàlla duma ma mën a du ma mën a jàkkaarloo yàlla ba mu faatu ñu def ko dem ba ci digg géej ba ko yàlla ne ndox téyel ma di yàlla dekkal ko yombal kiyaamati mu jàkkaarloo borom est-ce que kooku bugul buguloo defuñu ko lakkuñu ko def ko doomu taal waaye est-ce que dajewaatu ak yàlla ndax ka ñu def doomu taal ko ak kii nga xam ne dañ ko dajale dugal ci bàmmeel ku neex a yomba ci ñu dugal ci yomba xoolal kenn na mu def ci pexe fexe na ba ñu làkk ko ba mu xob ñu war ko ba mu mokk doon doomu tax doon pël léegi am na ñoo xam ne ci tool noonu la ñuy def bari na ñoo xam ne bu bàyyi am faatu dañuy làkk def ko doomu taal bari na ci inde yi ak ci asiatique tubaab bi ñu koy def ñu jël ko def ko ci butel teg ko wala ñu jël ko wis ko def ko ci seen jardin yooyu parce que ñoom gëm nañ àllaxira dina xam gëm na yàlla nee na dajaleel ma ngelaw dajaleel ma géej dajaleel ma suuf dajaleel yow man qiyaamati yàlla dekkal ko bu jàkkaarloo moom yàlla ne ko la xiir ci nit mu ne ko bañu la dajeeg yow ci bés bi rek kon pour wan la ne foofu sa yonent sallallahu alayhi wa sallam nekkoon demal yàlla jéggal naa la parce que gémmoon nga ne àllaxira jëmoon na de dajeeg man am na mais tamit yàlla jéggal ko parce que ngëm boobu moom moo am kon pour wala rek ne nit amul pexe boo mën a def mais doo dajeeg mën na laa soxla nga fexe ko di daal ñu gisee dina am tey jii buur bi mën na laa soxla président bi nga fexe ko di ngeen gisee parce que boo génnee loolu dugg ci yenn endroit yi la gis même boo xaroo sax noonu lay gise waaye yàlla moom amul pexe boo mën a lal ba yéen ñaar bu ngeen jàkkaarloo kon yow mi koy daw di daw téeréem bi di dem ci daw fa nga xamante ne moom mooy ay digleem ak ay tereem comme ni muy xewee ci jamono mu ne laa yax foon alee naa gën bu ma rëcc ñëpp xam naa fan leen di dugal xam naa fan laa leen di génne bu yow man ki am ci jote mu teg ci nag ne eemal eh, wala inna alladina inna alladina kafar woni inna alladina kafaru ñanga xamante ne weddinañu bi zicri alquran inna alladina pour walla ne boobu yëpp mu ngi woo fan ci kaw alquran inna alladina kafaru ña weddi bi zicri alquran gépp alquran yàlla bu ñu doon ay nafi bari na de ديالا ولكن أكثر الناس لا يعلمون كفروا بالذكر بل لا جسم الجمع وينو خمتنا يمنو القرآن شريعة القرآن من جيدت تقول ku dagg loxo ñu dagg loxo ñu ne d'accord mooy suñu réew yi nga xamante ne dañu doxal ci loi alqawanin alwadiya la ñuy jëfale mu ne ku rey nit nañ ko rey d'accord atte yàlla teg yépp kafaru bi fikr gëmuñu alquran muy benn kafaru bi zikr gëmuñu alquran ne nit mën na caa réussir ci àdduna wala ci àllaaxira tax na ba ñoom duñ ci sonn demal ci réew mi tey jii bu ñu lay wax intellectuel te intellectuel mooy nit ko yeewu kan lañ lay jox ci réew mi def nañu ba jagole ñi jàng tubaab tey jii nii booy wax tubaab ñu naaw la am na béréb yoo xamante ne boo yeggee ba wax tubaab surtout di koy prononcé comme kiiwu français yi doon comme français yi nga gis ni waaye tey jii boo nekkee taalib di indi mel ñu ne oh lay soofante maanaam dañu wax ne yow mi bokk ci mbir mi te boolewul la ci ñi nga xam ne mën nañ am xel ba dawal te pourtant bitig yu bëri ay marché yu bëri ñan ñoo koy dirigé ay taalibe yoo xam ne ñu jàng dama koy faral di wax gis nga expérience bi nga xamante ne moom nga mën a am ci daara mënoo ko am feneen parce que daara lépp ngay def ba nga nekkee xale bi noonu ngay am vingt ans ngay am quinze yu mel noonu saa soo xëyee rek am na nooy dëkk boole ko ak ni ñu lay tàggatalee di yar sa bakkan moo tax ñuy mën di taxaw ci mbedd yi digg bëccëg nga gis ne ñuy jaay coono boobu te bu fekkee rek ña nga xamante ne nag mënuñu coono boobu lan la ñu mobilisé dañuy xaar bi guddi ba mu sedd ñu jël seen bakkan di agressé kon pour woon ne li nga mën a jëlee ci xel ñor ci taalibe ci la ngay tund ci li ngay jàng mënoo ko jëlee feneen xam nga ko wax ki lay jàngal moo tolloo ak kenn yàlla nee na yonent bi nee na ñaar ñi ku ñuy jàngal est-ce que mën ngaa tolloo waaye ñun ci jamono fii ci réew mi nañu ba ki jàngal alquran dañuy wax ne bokkul ci borom xel yu moo tax mu ne kafaru bi zikri ñu weddi alquran jànguñu ko buguñu ko seenu doom jànguñu ko xiirtalu leen ca jaralu leen dara kii mooy ki nga xam loolu ko fekk nga bi zikr leneen lay lijjanti waaye bu alquran këram kenn du ko jàng alquran parce que doom yi ku ci wax damay dem daara sax mu ne hmm. wax naa la démb na du làkk bi lañuy ñuy attaqué ci lislaam yàlla fi attaqué benn làkk li yàlla di attaqué fii mooy système parce que di jàng boolewuloo yàlla ci dara ci dara boolewuloo yàlla ci dara ahkaamu wudu mooy jàpp nga xamante ne farata la yàlla ko wax ci daa kuntum ila salaati faghsilu wujuuhakum est ce que ñoom bokk na la ñuy jàngale ci seen programme ko loolu kon pour na ne yàlla li muy attaqué moom mooy système bi mooy di jàngal xale bi te boolewuloo ci programme borom bi tabaraka kon inna alladina ñi nga xamante ne kafaru bi zikri weddi nañu alquran gëmuñu ko am na ñoo xamante ne parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaar la ñaar la waaye ne alquran moom la zahirun wa baatin mu ne xarafu alquran boo gis na mu amee zahir noonu la amee baatin zahirul quran moom la ñuy tuddee sharia ci lugatu ahlil ilm zahirul quran moom la ñuy tuddee sharia mooy doxalinu sharia la ko dalee ca njàpp julli koor di dem ba ci ahkaamu alqadaaiya ba ci wàllu guddi ku sàcc ñu dagg loxo ku rey nit ñu rey la ak yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ati parce que chare ñaar li yàlla wax li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ngóor jigéen mu ne nañ ko rey yooyu mooy yi nga xamante ne moom mooy acte yi li feeñ li feeñul nag ñu tuddee ko alxaqiqa alxaqiqa masala am na koo xamante ne jaana ko mattoo hmm. waa ji jàng faatihatul kitaab mocc ko ca mu wér gën hmm. loolu alquran defu alquran moom moo ko def kon alquran na muy jëriñee ci kaw ci zaahira noonu lay jëriñee ci biir kon war naa génne alquranu karim mën naa jëriñ tey dina da ngay gis koo xamante ne dafa feebar nga bind ay alquran wala nga jël ay alquran di jàng ci bopp bi ko xam nga lim gëm dëgg la hôpital baax na reen yi mën nañu faj parce que yàlla ko fi def alayhi salaatu wasalaam daf ñu jàngal ñuy fajee mu ne bi riqati ba addina o turbati addina yushfa saqimuna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñaar yi la bi riqati ba addina riqa mooy tuuf wa turbati addina mooy suñu suuf yushfa saqimuna ci la nit di fajoo kon bu la waxee suuf mooy li sax lii ñuy tuddee ñu wax ci lii ñuy ñu leen di tuddee du garab garab li muy firi mooy nag garabu biir ko comprimé boobu naa ne mu jógee jógoon ci mën na faj muy benn ñaareel ba riiqa nit biiram mën na di metti nga jàng ci aaya alquran fa law la annahu kaana minal musabbihiin la labisa fii batnihi ilaa yawmi nga mocc ko ñaan ci mu wala nga bind ko mu naan ko ngël wala nga wax ko ci ndox aaye nga wax ko ci ndox mu naan ko ngël ah, ñiy weddi ñiy weddi ñiy weddi eh, safara ci erreur lañ parce que dañuy tuumalee ni yàlla ni yàlla comprendre bi maanaam dañ koy bindi leetar ne maa ngi ñëw mu gis leetar bi ne yaa wax ne yaa ngi ñëw mu toog di lay xaar nga bindi aaya alquran wala turu yàlla ne mu ne la kooku nit mënu koo naan ba ko kon loolu lu muy mooy yàlla déggu xamul li nga bind comme ñun ni ñuy xamee ni ñuy binde noonu la yàlla xamee ni ñuy bind ni ñuy réaliser ni ñuy réaliser saa soo ñu bindee lettre noonu la yàlla itam di réaliser boo ko bindee lettre moo tax bu dee ne wax nga ko baax na bu dee ne bind nga ko baax na waaye nag asaabu na asara ñi jëfandiku ci wàllu nasaraan wax nañ ne boo ko waxee mu gën a ëpp doole parce que kalima dafa am doole jaalaha kalimatan baaqiyatan kon alquran war ma gëm ne mën na faj comme ni ngay gëmee ne garab mën na faj waaye tey jii boo feebaree ñu indi la ay saafara nga sànni fee kon yaa ngi wedd kafaru bi zikr gis nga ko kii jàng alquran mooy sëriñ daara bi ñëw di lay moccal nga ne bu fi dugg si woo leen médecin kon yow gëm nga médecin bi waaye gëmul la médecin bi indi mooy garab waaye gëmuloo li nga xamante ne moom la imaam bi indi moom te mooy te mooy ñaari bi ne ñaar rek liggéey ñi rek ñay faj kon mocc mën naa faj nit te li gën a baax ci mocc mooy waxu yàlla wala waxu yonente bi parce que alayhi salaatu wasalaam mu ne bu la dara di metti jëlal sa loxo bi nga teg ko ci nga ne audu bi izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajiduhu haada nee na boo ko defee juróom-ñaari yoon boo ko defee juróom-ñaari yoon la lay metti dana la bàyyi بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو هذا في لاي متي غا واخ بير بو متي غا واخ بو متي غا واخ لوكو متي غا واخ بو متي غا واخ رنت بي نه يالا دا دند لي متي بو سي الاجي موسى رضي الله تعالى بو ولا جي امنا لي سي فوكو دون واخ مو ku nek wax nañ ma dama sét ko dama fébar waaye masuma dégg ne yow fébar la dama war naa sét mu ne ko ñaari ay ñaari saaru alquran lay mu ne te loolu ci sa maam lañ ko jële maanaam naka ci sa bàyyi lañ ko jële muy si Alaaji Malick ko papaam Alaaji Limaan Sam taalibeem la Alaaji Malick la bokk na ñu ko doon bind mu ne ko loolu ci sa maam ci sa bàyyi lañ ko jële mu ne ko loolu ko qul a'uudu bi rabbil falaq qul a'uudu bi rabbin naas moom laay jëfandikoo te doo ma sa toog mukk ñu ne ma Ibou Sakho ñu ne Ibou Sakho ñu koy fay ba dee ñaari ñaari saar yooyu loolu lay jëfandikoo te loolu mu a yéen tam sax moom moo wax ne fukki aaya ak benn xadis yonent bi nee na fukki aaya ak benn ci ñaari saar yu différence maanaam ñaari saar yu différence te mooy Quraan bu Falaq ak Quraan bu rek nag Quraan bu Falaq juróom ñaata aaya juróom benn Quraan bu rek nag ñaata aaya juróomi aaya boo ko boolee muy onze mu ne ñaari saar yooyu noonu lu mu mënta faj amul ci kaw suuf wala de kon pour woon la ne alquranul karim mën na faj waxu yonente mën na faj waxu bu sell la wax bu sell la na faj parce que boo demee ci wàllu ji ak yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ci ku jóow wax ko ba pare da muy moccee ci ji mu ne ko kàddu la yoo xamante ne Seydina Suleymaan moom moo ci d'accordoon ak jinne ya mu ne cadeau bi léegi ñu ngi jëriñ wata nga gis ñiy moccu jaar ñiy moccu ci ay cadeau la yoo xamante ne yu wér bari na koo xamante ne tey jii lan moo ko sooy ba ko jaar matte mocc yooyu noonu moo moo ko sooy te pourtant yóbbul hôpital am na feebar yoo xamante nii ci jamono ñu jël jànq jànkuwante dañ lay dem hôpital ñoom docteur ñu lewaat fa lii ne ko feebar hôpital ñu ngay koy dégg ne lii nekkul fi moom biddaa boo demee rek ñu ne la demal ci xam-xam bu ñuul xam leer bañ leen tuddul loolu yëpp ci sabotage bi la bokk ba léegi kon ñoom seen bopp mooy bu leer yéen seen bopp mooy bu ñuul mu ne demal ci xam-xam bu ñuul bu tuddul xam-xam wa haadaa kitaabun mubaarakun anzalnaahu téere la bu am ko rek bu tuddee ko nuur kon téere bi du leen leer kese la wala dé am na ci góor boo xamante ne France la dem na ci hôpital yi fañu ba ñoom hôpital yi docteur yi ne ko yow moom joxeel joxeel say waaw sa testament parce que bi nekk moom waaw léegi tey nga def juróom-benn weer mënoo koo koo paase mu toog commencé di xaar bi doomam ne ko kay ma yóbbu la si ci Cheikh al Islam wala ñoo hmm. ñu yëkkati ko indi ko ci góor dundaat na fukki at ba mu ñëwee mu yóbbu ci affaire mu ñaanal ko dem tam la kon pour wóor na ne alquran mën naa faj nit kon waroo weddi ne alquran bi day faj kon kafaru bi sikki ñaar moo ci ne mooy nga nga weddi tashrik bi wala nga weddi sikkirin bi te yonente bi ne xud min alquran ma chita li lépp loo bëgg ci alquran jël ko mën nga koo fajoo bu doon wa shifaa'un la yàlla wax comme ni mu amee ci fajoo noonu la amee ci ubbeeku am na aaya alquran yoo xamante ne boo koy jëfandikoo yàlla dafay ubbi sa ki ñu tuddee gis nga ko Abdullahi ibnu Jaafar dañ ko waxoon ne ko waaye yow sa alal bi bari na est nga bàyyi ci sa njaboot loo xamante ne bu ëllëgee bu ñëwee man ci jëfandikoo mu ne jox naa leen ndam saan bu dul jeex ñu ne ko moom mooy la mu ne suratul waaqiya moom laa lay jàng mu ne jëlee naa ko ci sama baay mu jëlee ko ci yonente bi mu ne suratul waaqia ku koy jàng nee na doo ñàkk jàngal naa sama doom man moom lay jëfandiku moo tax mu ñàkk naa kon alquran yemul ci faj sa jëm waaye dafay ubbi sa war sax ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ne moo demee ci wala mawul asrar alquran nag li tax mu jóg du loolu rek ñenn ña dañ ko buggal yeneen taalibe bu ko yemale rek man kataba haada man kataba haada alquran upp na foofu parce que yonente bi nee na ñaar la xaraf boo ci gis na mu amee la ca feeñ noonu la amee la ca boo demee ci jamono nag ñenn ñi dañ ko bëgg a def ne njebeer la am na ci ci ñi nga xam moom la ñu tuddee as-salaf ak al-mutasallifa nga xamante ne tey jii nii boo bindee téere dàq ko ci sa ndigg ñu la la Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas te dinañ doon tàkk nañ koo wax ne ko diw feebar mu leen ma mu ñaan ci la mu leen ko ba mu ko naanee wér du saaba kon saaba yi ko jëfandikoo ñoo njëkk jëfandikoo alayhi salaatu wasalaam Abdullahi ibnu Abdallah ibnu ibnu Ubay ibnu Salul rasul munaafiq doomam ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam indi ndox bu sell ne yaa rasulallah dama am ay nawle ak ay mbokk ñu Abdullah ibn Umar Abdullah ñëpp samay nawle la bu ñu àndeek seen baay di naw maanaam dañuy dafay dafay neex ci ñoom ñu présenté te man sama baay mooy rasul munaafiq gën ma ko présenté mu ne baay baay mooy rasul munaafiq indi woon ndox bi yaa rasulullah bu nga ñaanal ma ci ma jël ko jox ko ko mu naan ko pour li nekk ci xol bi ma la jeex yonente bi jël ndox ba ñaan ca du sax mu indi ndox bi ci bàyyi ne ko papa naanal mu ne ko du ma ko parce que xam na ne bu wax ko ni nag mu ne ko du ma ko naan parce que mën naa doon poson nga bëgg maa rey bu ma dee nga dondu du ko nag mu ne ko lii ndox la wax yonente bi moo ci ñaan ma bëggoon nga jël ko naan ko rek pour yàlla sellal sa xol bi mu jël ndox ko benn ko mu tuuru ci suuf mu ne ko nga indi loolu ma sa yaay moom la ko waxee ak jox saaga mu ne bu ma gënal lii ndox bi yonente bi sala salama ñaan du saaba ba mu jooyee ñëw ci yonente wax yonente bi ne eh ko naan ndox boobu moo ko bëgg kan moo ko kon saafara ñi koy jéem a ci téere lañ ko teg parce que alquranul karim dafa yóbbaale lépp dafa yóbbaale zahir te mooy xaq te mooy sharia dafa yóbbaale baatin ka ko doon weddi ma ne ko alquranul karim daf ñu indi qissatu Suleymaan ba nga xamante ne yónnee na ca ñu indil ko baaw balkis ba mu ne waqaala alladi indahu ilmu min alkitaab ma ne ko ilmu min alkitaab ndax kon ci téere ba la jóge xam-xam boobu mu mën a toog fa mu toog ñu indil ko baax mbaa bi naaw fi ñu toog dañ def ne nag baax ci seen kanam ma ne ndax xam-xam boobu mu nekkoon ci xeetu Seydina Muusa te xeetu Seydina Muhammad moo gën foofu ndax xam-xam boobu dangaa weddi ne mu ma dégg ma ne ko ndax xam-xam boobu nga xamante ne moom la yàlla tudd na ci alquran la joxe kon est-ce que mën ngaa wéy ci tawraat la joxe est-ce que mën ngaa wéy dina tawraat moom moo gën alquran xam-xam boobu nekk mu ne ma dégg ma ne ko xam-xam boobu nag ndax dañ koy jàngee ci baamu école yi te ñu di koy tuddee al asrar boo demee ñenn ñi dañ koy saboté nag de gis nga al asrar al asrar asrar mooy nit ñu bon al asrar bu la nee nga tuddee ko asrar bu la nee ko ilmul bu la nee nga tuddee ko alxawaati wala ne yëpp moom la bu la nga tuddee ko talaase boo demee ñuy weddi talaase te alquran seetal moom kaafu insaan parce que tarsa mooy looy gis ni di koy lire sa xamoo li muy afaye tallal du tal sa amim ah, aye firqa du tal sa wala ne kenn ci saxaaba yi ñëwoon ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba bu xoromu la mooy saxaaba bi sebe ci biir kaaba ci biir ci biir jumaa jumaa yonente bi keroog foofu la yenn waaye coow rek la fa indi keroog ñu toog di waxtaan di jàng ba mu yàgg mu jóg rek dem ca ruku ba rek ñu foog ne leneen lay def rek sotti ko kaay yëpp dem ci kaw dañ koy dugg mu ñàggal naaw de ku ma laaj yonente bi ne bàyyi leen ñu dal di ndox sotti ko ca mu ne ko jumaa kenn ci sebe tudd yàlla rek parce que dañ ko war a ko xaw ma ko leen def ko waaye bu ko ñoom ñëw toog ci yonente bi ñu continue ba waxtu julli ñuy kàbbal di julli mu tisoon ba mu tisoolee gis nga dañ di bàkku ko sàngam dañ di bàkku comme ni ñu koy defee ñu may ñëpp xool loolu muy yëngu julli ba ko ñëpp mu ne bàyyi leen tuuti pour sama yaay bu leen julli ba ñu sëlmale yonente bi ne kan moo doon wax ci julli ñu ne ko waa ji ñu indiwaat boobu ñii nga koy xeel ñii koy ciikat ñu indi ko ba ci yonente ne ko julli boo xasee ba amul leneen lu dul jàngal alquran ak sabal yàlla loolu xaw ma léegi nag pour ci xel dafa am xam ne dañu deret ci la toog nag di laaj yonent bi mu ne ko yaa rasulallah hadis bu wér mu ne lu jiitu dañ doon dem ci njëbeerkat di dem ci buhaaba yi yeneen tamit nee na bul dem ca jox ku dem ca bois ba wala nga dem ci njëbërkat lépp loo liggéeyoon yàqu na te ñeent fukki fan lépp loo def yàlla dina ko nangu mu ne ah am na gaa yoo xamante ne rijaalun kaanu yaxutuuna illaa rijaalun kaanu yaxutuuna am na ñoo xamante ne dañuy bind ndax ñoo di ndax ñooñu loo ci wax yaa rasulallah yonente bi nee na bind ba xool ko fa man waa fakka xam-xam mu ne xam-xam la bu yàlla wàcce ci ab yonente kaana nabiyun yaxut wala kullu nabiyun kaana yaxut ñaari waaye ñëw kaana nabiyun yaxut ñu ne Idrisa la ca naan wala kullu nabiyun yaxut mboolem yonente yi jaar nañ ci parce que Moussa lan moo fa xew lan moo xew dangaa foog ne waa waajam xuda xuda dafa jël paaka wala jël jaasi dem rey waaje deful noonu de ci lasaraar la ko rey ci Nasaraan la ko rey bu ñëwoon fekkoo mu rey ay duñ ko dàkk amul ay bàyyi ak ay mbokk bu reyoon xale ba jël jaasi wala paaka rey xale ba wala dóor ko ci miir bi mu dee comme ñenn ñi ñu koy waa ci Nasaraan la ko rey dafa mel ni rey nga ko ak jaasi benn moom nga jël jaasi rey ko benn ci àtte charia ñaar ñëpp ñu ne la yow dee boo ci reyee nit ñu war jaamati yàlla daf lay mu ne ko yooyu dañ ko doon def di bind di takk di bind di sàmm yonente bi sa alayhi wa ne ko am na yonente bu ko doon def xam man waa fakka la ko waxe ba kalimatu wafk ko nga xam mooy firi xaatam mu la jóge tey jii nga gis boo dugalee xaatam bi ni koy dugalee jëlal xisaab bi boo xisaabee rek mu ànd ak moom ko al wafk te xoolal la mu jóge loolu xamal xoolal mag ñi ñu ciy liggéey doon xam-xam wax kenn lañ jëm ci faj feebare ci ubbi buntu warsak yi ci koy looy yootu yàlla yomb la am booy dem tukki jéem jéem lu nekk nga ñëw mu defal la yàlla yombal kon pour wal la ne xam-xam na bu wér bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam saxal alquran saxal ko moo tax mu ne aw asaarati min ilmin asaarati min ilmin moom mooy xam-xam moom al asrar kon alquran da nga war a gëm ne am na mafool bi maanaam mën na faj mën na wér mën na lu ne parce que xud min alquran ma chita li ma chita waaye itam boo ko fa yemale alquran dafay jàngale njàng da gis koo xamante ne dafay xotti nasaraan bi di xotti xaatam yi xamul àttee sharia wéru moo tax bu lay waa naan mën naa lasaraan te xamul dara ci charia wérul parce que foo gis garab foo foo gis euh, nu garab euh, xobu garab reen ba moo fa nekk il faut mu am reen xob bi doo rafet kon il faut nga xam charia door a mën a xaqiqa waaye boo yemee ci xaqiqa rek sax moo tax imaam imaam imaam Maalik boo xool fa man taxaqaqa wala man tasawafa walam yatafakka man tasawafa walam yatafakka akatafasaka waman tafakkaha walam yatasawwaf waman tafakkaha walam yatasawwaf faqad tafassaka waman tasawwafa waman tasawwafa walam yatafakkah faqad tadallaka waman tasawwafa wa tafakkaha faqad tahaqqaqa Imam Malik بمعنى يفهم بولد الشريعه boo buggee yem nga ne la nasaraan rek te boolewuloo ci charia borom moom boo mooy nga doon naafiq zindiq hmm. boo buggee jël fiqhu bi te doo jël xaqiqa bi boo mooy nga dugg ci fisku waaye itam boo jëlee itam bi ñuy tuddee fiqhu bi boole ko ak li ñuy tuddee tasawuf bi bu waa fakk taxaqaq yaa ngi door a doon nit nag kon kafaru bi zikri alquran da nga war a global gëm ko ci lépp nag hmm. mooy na nga gëm charia mooy charia bi waaye na nga jëm itam xaqiiqaam te booy mafool ba boo demee nag am na ñoo xamante ni fa fa ñu gën a mane te réewul man nañu seen zaahir seen euh, baatin waaye mën nañu seen zaahir am ñoo xamante ne ci zaahir la ñu gën a manee comme lu mel waaye boobu ku na ka Jaafar as na mu manee woon ci xaqiiqa moom na manee woon ci sharia góor yu baax yi nga xamante moom lañ xam ci réew ñoom Sëñ Tuubaa ak ñoom Alaaji Ibrahima Ñas ak Cheikh al Islam bi dañuy xam tasawuf dañuy xam sharia bi boole ko xaqiqa tey jii nii boo ñëwee mën na laa firil alquran bi firil la xadis yonente bi firil la lépp waaye ci biir loolu itam gis nga ko ngeen duggee ci fawaidul quran mën na laa wax ne aaya bi lii lay jëriñ aaya bi lii lay jëriñ bu dee da ngaa tax jëlal aaya bi bu dee da ba tey métti jëlal aaya bi sa biiray métti jëlal aaya bi loolu nga ko war a gëm boo gëmul loolu yaa ngi weddi alquran karim waaye defe naa xamoon na ay suwaal ne ay suwaal yu ci nekkoon ñu jël ko après door a bu njëkk ba mu ne al kutubu ak mu jaddit est ce que ñoom ñaar ñoom ñaar est ce benn la xakay benn la al qurbaan ya ak li ñu tuddee mu jaddit benn lakk bi rek moom moo ni koy waxee moo ñu koy waxee moom waaye ñoom ñaar benn mu ne nag alaaji Ibrahima Niass dañ dénkoon ci moom mu wax ne ne kutubu mooy koo xamante ne bu ñu nàkkoon téere yépp mën na koo bindaat comme mosaïque mu bindaate woon tawraat noonu la ko borom xam-xam yi définir parce que dañuy bañ ko fooy ku rek ne man xutbu la xutbu da ngay jàng téere yi jàng alquran jàng xadis yonente bi sallallahu alayhi wa ñaari il faut nga maîtriser ko moo tax imaam al Junayd doon wax naa suñu mbir mi ñu ko teg ci alquran ak sunna gis nga koo xamante ne mokkalul alquran man lam yaxfad alquran wa lam yaktub alhadith manoo ci moom mooy koo xam mokkalul alquran xamul hadith manul doon waaj kon il faut nga man alquran maîtriser ko man hadith maîtriser ko boromam nag nga téere yi foofu lañ ko jële boromam bés bu téere yëpp làkkoon alquran bi mokkal na hadis bi maîtriser na ko bu boobaa dina ji du réer moo tax ihya wa ulumuddin ñu wax ne téere boobu noonu bu fekkoon ne tey jii nii alquran réeroon wala hadis réer na nee na diina ji réeru parce que ni nga ko tuddee xoolal ihya wa ulumuddin lépp lu dem ci wàllu diina rek tudd na ko man leeral ko mu leer ba nit mën na ci yéen jàng sa diina kon buñ lay wax ko mooy dafay xam diina ji waaye kub boo xamante ni xamul li téere yi wax xamul masala maîtriser wax ko buy jàng ay alquran di yàq ay mm. xammewu ci daal kooku tëbee ne man kutubu la bu ko topp yooyu yaay sànq sa bopp mm. te bari na ci réew mi nag mm. ci benn télé mu ne moom kutubu la waaw mu ne xool na ci kaw suuf daal wax wax bi ñeel mu ne waaye man nii la waa jàllaaj ma nag benn masala masala góoru maanaam nguuru ngaan xamul sa ñu koy àtte ci miiras boo ko dugg kooku dafay xam masala yi dafay xam fekko yi te mooy al mujaddid al mujaddid mooy koo xam ne dafay maîtriser alquran maîtriser hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaareelu choix daa nekk orom mu ne mu gis jigéen mooy ñu di dékkaale boo demee ci alquran al karim ba muy tudd hurrimat hurrimat wax ñi xaraam dafa tànn walbatiku wax ñi dagan والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمان كتابا وأحل لكم ما وراء ذلك wax nga xam ne mën nga leen a tànn waaye mu tuddaat ba mastataatum bihi min hunna fa aatuhunna ujurahunna loolu boo nekkee ci réew mi fii mën ngaa ñàkkaa soxla waaye boo nekkee Europe nag il faut nga soxla moom lañuy ñuy tuddee mariage li gën a bari ci téere fiq yi nag dañ ko xaraam waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu wér te téere fiq yi téere sunna yëpp saxal na mm. Buxaari ñëpp a ci d'accord mais ñoom imam ñoom ñëpp d'accord nañ ne lii moom dagan mm. yonente bi def na ko def na ko yonente ci jamono def nañ ko parce que saxaaba ñoo Abdullah ibn Umar mm. def nañ ko fi xayaati rasulillah te mooy gisanteeg ndaw si yi ñaar ngeen waxtaan bi déggoo nga takk ko temps nga takk ko ñaari fa ñetti nga takk ko weer nga takk ko ñaari at nga takk ko fekk maa ngi fi ci nawet bi bu may ñibbi bàyyi la loolu tuddee mariage temporel saxaaba yi saxal nañ ci jamono yonente bi yonente bi daganal na leen ko mm. ñoom ñu ne ñu ko doon def abdullahi ibnu omar mm. mu ne def nañ ko ci jamono yonente bi def nañ ko ci jamono seydina omar eh, seydina nañ ko ci jamono seydina foofu la benn waay tamit dañ ne ko yow sa bàyyi damay xaraamal li nga ñëw di koy kii mu ne sa bàyyi ngay kont Seydina Abdullah ibn Omar mer ba futt dóor ci dënd ko ne ko mën dalee wax naa yonente bi ne nga di may wax naan bàyyi sàngam nee na hmm. kon bi maanaam pour dëgëral ne la yonente bi daganal bu Seydina Omar mën na ko xaraam hmm. Hmm. parce que fuqahaa yi li ci gën a bëri ci taarix yi dañ lay wax ne taarixul fiqh yi dañ lay wax ne Seydina Omar moo ko tere ñaari tamatoo mu ne Seydina tamattu'ul hajji wa tamattu' fi nisaa Seydina Omar dafa def ci aj ba gis ñëpp sol seen yére yu rafet yi hmm. parce que boo tawaafee rek mën nga sol sa yére mu gis ñëpp sol seen yére yu rafet ak seen kaala yu rafet mu ne lii dafa wuute gi moom bi tax yàlla ne na ngeen sol armal parce que fii dañuy wan na te ku ci nekk sanseen ku ci nekk wane doole te boo gisee aj bi ñu defee ko ni pour modeste hmm. mu ne kon bu kenn dafa ci tamattu ku ñëwaat ñi maa nga def ifraat continué ba aj bi jeex kuy ñibbi ñibbi sa kër dem san seefa waaye kenn du san seeti fii ci biir boola mu tere mooy tamatoo nga aj tamatoo ñu koy defaat ba tey ci kon Omar tere waaye tere ba léegi ñu koy def ba mu yoon seen naa war faa loolu ñu delluwaat ak tamaton bi ñuy tuddee tamaton nisa mooy ñëw waxtaan ak ndaw si yéen ñaar ngeen déggoo nga takk ko ñaari fan ñett fan yéen ñaar ku ci nekk dem yoonam seen naa Omar def ko teroon parce que dafa doon toog la ñu benn jigéen ne kii de dañ ko fi tàkkoon gis nga ko waajal dem na xamatuñ fi mu nekk bàyyi ko doom jaa ngi nii mm. du am ko ko tey léegi bàyyi ji xamul ne bàyyi na fi doom mm. doom ja nekk ba bàyyi ji waroon koo dundal bu ko dundal mm. seet naa Omar ci loolu bu njëkk si ne kon bu fi kenn defal ci tapatoo foofu la tere yi bari na su ko nekk nag tere tapatoo kon boo demee ci fiqh yi yan aaya bi ma la tudd ñu ne aaya boobu loolu lay wax fa mastamtaatum bihi minhunna parce que ñu bokkul ak jabar wal muhsanaatu illaa maa malakat aymaanukum kitaaba llaahi aleykum wa uhilla lakum maa waraa daalika an tabtagu bi amwaalikum muhsiniina gayra musaafihiina kon jabara nga fa mastamtaatum bihi minhunna ñu ne boobu la borom bi tabaaraka wa taala di jël joxe foofu autorisation ku euh, na ne bu dul woon tamato bi Omar nee na nit du def njaaloo ci xeetu yonent bi lu dul bu sàggan waaye nag même temps la ñu jëlee ci seen naal yi ne moom moo wax ne yonent bi dafa araamal tamattu ci keroog xëy na te ñi nga am ñoo koy sax waaye waxu Abdallah ibn Abbas moom parce que boobu amul riwaaya bu wér waaw Abdallah ni ci jamono yonent bi def nañ seen man Seydina ci jamono Seydina Abu def nañ ko mu nag mu ci moom Abdallah que même Seydina Ali àndoon na ak Seydina Omar te boo ko teree tamatu ci liñ ko wax ci yaay nag daa ko ci yaay dañu def tamatu benn problème mu ne Seydina na xalaat bi Omar jël parce que chef d'état a tant que chef d'état bu la neexee nga jël ay organe comme ni Seydina Omar jëloon organe ne kenn dàgg loxo yi ku sàcc ci amul rabaate te pourtant sàcc ku sàcc dañuy dàgg sa loxo ci lislaam Seydina Omar daf ci taxaw ne déedéet ñu ne ki nga xam moom mooy chef d'état am na droit jël yenn engagement yi <coughs> moo tax ñëwee Seydina Ali dafa jëloon engagement parce que li mu gisee doom yi di tasaaroo jur sa doom xamuloo fi mu nekk di yaay ja nekk fa di taxawal du ko mën a dundal sonn lekk ñu gis ne kon loolu est que duñ ko tere maslaha ah ba waaye Abdoulahi ibnu Abbas masu ci d'accord ak moom te pourtant taale bi la ci moom parce que gannaaw bi yéen tamit demee Seydina Ali moo ko jàngal mm-hmm. moom Abdoulahi moom la jëkkale àlluwa waaye masu ci d'accord ak seeni naate ci masala boobu moo tax dafa doon wax naan lu daggal la kenn mënu koo tere vraiment waaye daf ci doon teg nag ne kalma it te dafa mel ni metti metti kan moo koy lekk ki ko aajo bu lekkul dee ki nga xamante ne moo ko deful dem ñaaru kooku lañ ko may mu ne tamatu kon ñi nga xamante ne ñoo dem or war faa nekk fukki at xamaguñ seen këyit seen jabar yi nekk fii te tubaab ba dafa jógee ñëw sëy si seen kër parce que tubaab ba da ñëw fii Sénégal bi parce que ñëw Afrique rek mbugal balaa ngay xam ne ñëw Afrique mbugal la saa soo xamante ne suñu président yi mere nañu benn waay bu nekk Europe ni koy def dañ koy ñëw rek refoulé pour won la ñun suñu suñu jiibi mbugal kese kon tubaab ba du jóge Europe di ñëw dikk si fii di seyal sa yaay di dem rooti di dem togg ci waaj bi ci mbanay tubaab bi dina ko def kon sëñ Tuubaa bi du ñëw fii te yow ci sa bopp itam doo fa dëkk kon foofu maslaha ñoom niñ ko waxee maslaha maye na kon nga tàggu ko ba ba ngay ñibbisi booy ñibbisi après nga bàyyi ko kooku lan la dama toog temporaire waaw déet jar jar que tamato da waaju tamato boo koy jàng ci kii jar sa seede wala dafa am lu muy teg nombre rek boo demee ci téléphone yi dana la dana la ko gën a leeral waaye pour wan la ne ñoom ñi nekk ci àll bi ne ba léegi ñu soxla ko parce que ka ko nettali mu ne keroog ba ñu demee aji ci saxaaba yi mu ne moom benn xale tam ñu ànd dajeeg benn xale bu jigéen waaye leen xel nag boobu ma leen ko nag ngay jóg nag ne gis nga ko li ñuy dagal a tamatu téere yi dañ ci wax mu ne déedéet parce que mas la am waaye comme amaana elmiya moo tax ñu di koy waxee ci jamono yonente bi ca fatu Makka kenn ci saxaaba yi ànd ak moroom ñu ne ñuy doxantu dañuy benn xale bu jigéen bañ ko gisee ñu ko bu gis nga kenn ki ne sama xel da ci nekk ñëw waxtaan ak moom mu ne leen lii moom a gën a mu ne ko loo bëgg ma jox la mu yëkkati mantoom ba jox ko mu tàmp ko ñaari fa ñett fa yonente ba mu ñëw mu ne ko foo nekk mu ne ko dama tamatoo ci lii ko waxee ko mu ne ko mbaa ndaw sa rafetoo pour wol la ne amoon na ci jamono yonente sallallahu alaihi wasallam amoon na ci jamono Abubakar Siddiq amoon na ci jamono ki nga xamante ne moom mooy Seydina Omar fatra wala diir ci jamono Seydina Omar ba ba koy tere léegi nag ñu ne ñu koy nga xamante ne xaraamal ko ñu ne ñëw na ci am ñëw na ci xadiis mu ne kan moo gën saxaaba yi ba dee saxaaba yi def nañ tamatu ko lan moo tax ñu war koo tere kon bu fekkee ne yaa ngi ci sa foo xamante ne soxlawuloo ñu ne ko jaru ko waaye bu fekkee ne ñu def borom bu fekkee ne ci diir boobu ki koy def Europe bàyyi na fi jabar léegi kooku ndax jabar ji loolu itam beneen àtte la mu ne ndax kooku nga xamante dafa bàyyi jabar fii nag mu ngi Europe bàyyi fii jabar loolu itam lislaam def ko àtte gis nga booy dem Europe waxtaan ak sa jabar hmm. suñu mag ñi dañu maa ku ci doon dem màkk te xam nga ne da ngay ñibbi si masala loolu nga fas yéene comme ñu nga xam ne dañuy dem Europe fas ñu fa waaye xamuñu kañ la ñuy ñëw mag ñi dañ doon fase seen jabar waxtaan ak ñoom kon booy dem Europe toogal ak sa jabar ngeen waxtaan moo tax xaw ma ci daa ko takk jabar bàyyi ko fii te ñëw surtout nga ne amaguma kay dañoo ne balaa mooy rëcc amul avantage mag buñ doon dem dañ doon teg seen jabar maa ngi dem de xaw ma kan lay ñëw léegi dama lay may sa baat la nga dem seeti keneen parce que xaw ma kan lay ñëw ci lislaam Seydina Omar dafa toog ba ca guddi muy doxantu ci biir Madinatul Munawwara dégg benn jigéen buy woy mooy Nasr bu Hajjaj ba mu demee ba ca guddi kat di déglu ndaw sa ndaw si ci boppam ne ay yàlla yellante woon na nasru bun xajaaj bi nga xamante ne xale yu jigéen yëpp moom lañ ko bu rafet loolu ñu waxee mënoon naa ko jot fii rek ci sama wet ba mu tàngal sama yaram wala ma jot ci kaas bi rek mooy sàngara bi nga xamante bu ma ci amee ñaari góob ñetti góob rek sama yaram tànk te naaw ma dégg xëy suba teel convoqué ko mu ñëw hmm. mu ne ko dama lay doo mu ne ko ci lan mu ne ko ci lan mu ne ko parce que yaa woy woy jiw yi mu ne ko maa ko wax mu ne ko kon dama lay doon yow saa saay ci dëkk yonante ngay xamee ma dajeeg xale yu góor yi fanaan ak ñoom di xemem bi gis nga ko jot ci sàngara bi naa ci ñetti gub ba ñeenti gub te ak tàngal sa yaram dama lay doon mu ne ko man waxuma ne dafa ko def damaa wax ne yàlla dewoon na law yàlla dewoon na law te charia nag du wax ne nag nit ki la muy xalaat moom lañ koy doore bu doon nit ku nekk li mu xalaat ñu dóor ko ndax papa ba mu toogee ba xale bu jigéen bi romb ba mu yëngal boobu ñu ne ko lan la mu ne sama xel bee saa saa parce que ne lépp looy xalaat rek nañ ci sax moo tax mu ne ko man dama xalaat waaye def ma appliqué ko kon mënuma ci loolu mu ne ko wax nga dégg de mu tegal ko ci mu ne ko pourtant li ma dal yow mii ama ko teg yow ma mu ne ko ci la mu ne ko parce que sama jëkkër dippi ay weer a ngi nii mu ngi dem ci xeex ba te yaa ko bind mu dem ci arme ba mënuma ci jot lii moo tax ma xamee pour jot sama bopp lii rek la waaye bu ma jotoon sama jëkkër mooy yëngal sama laaj bi keneen la dem ci Hafsa mooy doom demul ci ay jabaram ku am xel la parce que bu demoon ci ay jabaram ay jabaram dañuy seet lu leen aaraan ñu wax waaye ci ki mu dem mooy Hafsa Hafsa du amatul jëkkër parce que yéen faatu amatul intérêt pour fen dafay wax li am hmm. moo tax léeg-léeg laaj jigéen yenn masala yi bu lu dem ci wàllu intérêt moom daf lay wax intérêt bu féete hmm. waaye du la wax li am moo tax yonent bi ne dee koy déglu waaye boo paree nag nga am noo réalisé ba mu waxee loolu doom ji muy Xafsa Xafsa daldi rasul na ko yow tam sa doom laa de xanaa dangaa fàtte hmm. seen naa war na ko jigéen ñaata biir lay toog bu mu mën a muñee jëkkëram xam soti daal di rafet ne ko yow ci sama bàyyi nga nii dafa laa loolu la war a mun wax ne mu ne ko hey eh, virus amul il faut nga wax na li am mu ne mu ne ko pourtant ñëw na ci alquran te naa naa ci alquran jàng naa ba xarab naan waaye gis ma fu yàlla waxee ne diir bii la jigéen mën a toog du muy jëkkëram mu ne ko ñëw na ci alquran ci suratul Baqara wala de mu ne saay su ngeen waatee wala dina yuuduuna min nisaay tarabbusu arbaati ashhur mu ne ku waat ne du joteeg jabar yàlla nee na si dinaa leen seetaan bi ñeenti weer ñeenti weer yi bu buggee passé bu boobaa nag ma tas say ba forcé kon ku abandonné jabar masalan ko xamante ne jabaram fay na masala ñëw ci kër bàyyi toog leen xam benn fan ñaari fan waaye ñeent fukki fan bu nag ñaari weer bu ko mën buggee mat nag bu boobaa nag bu ko dul jabar hmm. na ñëw jël si ko wala mu fase na wax leen waaw moo tax mu ne ko ñeenti weer hmm. la nit ki mën a toog xaar ci kër hmm. Seydina Omar daal di ñëw daal di joxe ne képp ku demal ci ca xeex ma bu fa amee ñeenti weer na ñibbi si ñëw gis seen famille bi après door a delluwaat ñeneen demal kon wóor na la yaa ngi def borom dafa am at te ñeenti weer la lislaam jigéen ba am na droit ne ko fase ba fase ba am na ko ku jëkkër kii tam war na maan be bu mu caa loo jabaram maanaam bu mu jóg ne ko xaar maa ngi dem rek ma dem tuuti nga toog fi di koy xaar xam loo kañ la léegoo léegi ay problème xew ci wante da ngay gis koo xamante ne bu nga moodu moodu la loolu xew ci gannaaw du wax la parce que xam na ne erreur du moom moo ko def te itam xam na moom la fa def moom parce que xam ne ñeenti weer mënu koo sa jabar ko moom moo tax àkk la nga jël sa jabar bàyyi ko fi bu fekkee ne nag da wax naa mu ne la dinaa la muñal dinaa toog xaar kon moom moo jël engagement bu toogee xaar la ñeenti at itam bu boobaa moo jël engagement kooku diggante la ak borom tabaraka wa taala kon loolu il faut ñu xam ne mooy bu jigéen daganul nga bàyyi ko fu mu mag bu ñeenti weer lu dul ne da waxtaan te teggoo ci bu jox la accord wala moom ci boppam nga fase ko balaa ngay dem waaw waaye amuloo bu loo bàyyi ko fi moom itam mu nekk ci lu ko mel loolu dara bor bi bor bi mooy ki nga xam ne dañ ko tey loolu dañ ko bor mu ñëw fayee ko si ko moom borom ki nga xam ne moo leble woon ñu histoire bi mu far koore léegi nag dafay doon attee ku rey nit te tey ko boobaa dafay génne téeméeri gëlëm jox téeméeri gëlëm lan lay jar ci xaalis ci liquide fukki million wala lu mel noonu lu yëkkati fukki million wala gis na même oto bu ci bokk nit ba mu faat da ngay noonu da ngay bokk war ngaa génne fi parce que ku rey nit tey loolu da ngaa war a génne fi loolu la mooy fi nii xam nga dafa war a joxe moo gën li war a joxe léegi nag moo ëpp borom bi nag kon pour wan la rek inna alladina kafaru bi zikri mooy alquranul karim dañ ko war a gëm ñaari côté yëpp bés boo weddee benn côté bi mooy sharia boromam yéefar waaye bés boo weddee itam xaqiqa mooy li nga xamante ne mooy baatin bi boromam itam yéefar la naafiq la koy kon gëmal ñaari yëpp inna alladina ñi nga xamante ne kafaru wedd nañu الذكر أو أن كريم لما جاءهم بمن يوالي وإنه تنيوم ولا موم لكتاب تير لبو خمسين عزيز تير بو نيفة كتاب جيت وال خم خم ولا رجلا يدخل خم مولا رلا الدنيا لبين دي كومبوزي أدنى لول بنتير ما ما ينوم دلوقتي دمن جاهو تير دار يبقى bidaayatul xalq mu ne la nit ci golo la jóge li doon te pourtant bu dee téere bi ñu wax na du leer maa xam la ko ñu ne fan la yàlla commencé bi nit ki ñëw ci kaw suuf naka la ko fi yàlla ko fi tegee hmm. ak ban bés la ko fiy jële dana mas a am bés mu jëlee ko te boo demee ci ñoom daal bi ñoom wopp ne nit dina fi mas a jóge te pourtant yàlla ci alxuraan dafa wax ne dina mas a am bés adduna biy tukki hmm. kon nga xool yàlla wax na lu leer ci xam-xam lii mën nga ko fekk ci beneen téere mën nga ci beneen téere ñëw fekk ci wàllu loi doxale ñu li gën a bari ci téere da ngay gis téere boo xamante ne ci wàllu baasu docteur nga gis boo xamante ne nekk ci wàllu économie nga gis téere boo xamante ne wàllu histoire jaar jaar di taarix nga gis téere boo xam ne romantique hmm. affaire mu gën a lew nga ñëw ci alquranu karim lépp nga fay fekk nga gis téere yoo xamante ne livre yoo xamante ne daf lay wax daxaaba maanaam xew bu tàng bu metti alquran ñoo boole bu dee ci xisas am na romantique am na daraama moo tax boo demee ci xisatu yusuf mu ne ahsan al qasas bi ma awxee naa ilay gis nga film Seydina Yusuf bi alayhi salaam réaliser ba tey jii nii amaguñu dañuy échec pour mën a réaliser film boobu waaye bu amoon mooy tàkk ci film bi dëgg la dëgg na waa Iran defoon nañ ci film bi ba ñëpp di koy seetaan loolu day waaye ba léegi des na parce que dafa boole yi daraawa lu jiitu expérience maanaam affaire gent yooyu yëpp mu dugal si yow dugal affaire dund bu ñàkk bu amul tus bu ñefe hmm. ba noonu la dee di yegg lépp nga lépp nga ciy fekk te bi nag noonu la mel dañ ci fekk kii xam-xam ñi nga xam ne ñoom ñooy béykat yi mm. mën nañ njëriñoo ci xam-xam li nga xam ne daal Alxuraan mm. ñi nga xamante ne ñoom ñooy sàmm sama neeta alwaa ji bi na daal ñii sàmm mën nañ ci seen xam-xam xam-xamu napp dañ ko ci fekk fil fulki wa jarayna bihim bi riihin tayyibatin dañ ko ci fekk ci Alxuraan bi dañ ci fekk ci wàllu médecine mu di lay jàngal médecine dañ ci fekki histoire mu di lay wax ay ñoom Firawna ak ñoom seen Seydina Adama ba tey jii dañ ci fekk itam li ñuy tuddee théorie xam tey di tey jii bokk na ci film yi gën a dox mooy dañ lay wax bi maanaam suuf si juróom fukki at ci kanam bu muy mel alquran réussir la di lay wax lu yëg si nga di koy théorie ci wàllu falsafa mooy philosophie boo demee alquran def ko ci fekk boo demee ci wàllu xam-xamu loi danga fekk alquran kaw tegal la ci wàllu xam-xamu loi mm-hmm. te pourtant boo demee ci tubaab bi téere bu ci nekk wala xam-xam bu ci nekk dafa am spécialiste téere bi ci lii lay wax téere bi ci lii la moo tax boo demee ci bibliothèque yi ñu ne la téere yi ci lii la ñuy wax téere yi ci lii la noonu la koy catégorie pour mu mën a yomb pour nga mën a gëstu alquranul karim nag benn ñuul la mu def ci ay boo leen xam-xam lépp lu leen soxla maa faral ak kitaab ba te mu tuddee ko kitaabun aziz téere bu jafe li mu composé ak ni mu tuutee nii xam-xam yëpp mu ngi ci biiram moo tax mu ne la wa muhaymina wa muhaymina alayhi kon gisuñu téere bu mel ni moom ba tey ba àdduna suuf ba tey bi nga koy xam xoolal ñaata tafsir ngay fekk ñaata tafsir hmm. ngay fekk ci alquran karim doo ko gis ci taw tawraat mel ni tafsir la mooy tam waaye ñun boo ñëwee da nga fekk tafsiru tabari tafsiru ruuxul bayaan wala da fekk tafsirul jalaale yi tafsiru Chamaxbari xaseetu sawi ngir na ko yokk wala déet waxuñu waaye tey jii nii xoolal ala jaama dem tafsiram di yàlla na yéree dañ ko yàlla fee nga xool tafsiru alaaji Ibrahima Niass radiyallahu taala an nga xool tafsiru alaaji Oussao ca kasetam li wala xool alaaji alaaji Ibrahima Fall alaaji Ibrahima Niassa yal nañu ko yàlla fayal moom ci kaset la ko defoon. voilà Moustapha Guèye tam naka noonu rek Moustapha Guèye tam gis nga hmm. de nga dégg si ñaari Niassa ak ñoom gis nga ko bi ci daara ji fi tafsiru góor bi gisee rek hmm. te du mu ngi hmm. imam siis yal nañ ko yàlla fayal tafsir ko ci wolof te wala de te xoolal imam siis tafsir ko sëriñ bi tafsir ko te benn bu ci nekk boppam téléphone alquran moo mel noonu moo tax mu tuddee ko kitaabun aziz téere téere bu jafe na bi maanaam jafe na jafe na pour mu doon jafe na pour mu doon xam nga tey jii booy gis koy taalif téere Alaaji Ibrahima Ñas bu muy Alaaji Amadou de bu muy taalif téere bu diyaabu nay rek ñaar fukki at la ci ñaar fukki at la ci kon yàgg na ci béy ci la mujjee toog wala de nga gis koo xam ne dafay taalif téere nga gis ni mu ci sonne xoolal mu war tax rek imam Malik mu ko taalif ci fu diiru fukki at kon taalif téere xoolal ne mu jafe te bokk na ci li gën a jafe nag taalif téere moo gën a jafe tabax néeg bi taalif téere moo gën a jafe tabax néeg bi moo tax ngay gis ku teb rek tabax néeg waaye ku teb taalif téere yombul boo tee ñu ne kan moo ko bind Alaaji Amadu kan moo ko bind Cheikh Ahmadou Bamba kon bi ne Alaaji Ibrahima Ñas kon kale yëpp ngay dégg ne tànnif lan téere wala de te fii nii gis nga ko mu tëb rek waaw sant waale gis ko dem samp samp néegam kon tabax téere moo gën a jafe daa eh, tabax kër ci boppam yàlla nag bind téere bii adduna ba adduna jeex li ñu bind ci ay téere tolloo na alquran mu wax ko ci soratul isra mu ne la iñi tamaatil ins nit ñëpp ñu dajaloo wala jinne jinne yëpp dajaloo def ko waa lisi waxul jinne yi côté de nit ñi côté de jinne yi ak nit ñi ñoo daje def ko waa lisi américains yi européens yi chinois yi ñoom ñëpp a daje daje jinne yi nga xam ñoo nekk ci sangaba dajeeg jinne yi nga xamante ne ñoo nekk ñoo ko la ko baax dajeeg jinne yi nekk ci asamaan dajeeg jinne yi nga xam ñoo nekk ci biir suuf si ñoom ñëpp ñu daje di sottiwante xalaat pour taari pour pour taalif benn téere bu niroog alquran laa yaatuuna bi misli yàlla mën na koo indi kon liñ téere pour réaliser ko rek est-ce que yomb léegi yàlla moom wàccee na bi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ñaar fukki at ak ñett ñaar fukki at ak ñett fukki at ca Makka fukki at ak ñett ca Madina te yonente bi dafa diis ci moom moo tax yàlla di koy def wa quranan faraxnaa li taqraahu ala nnaasi ala muksin dafa diis ci moom moo tax mu yàlla oyofal ko comme taw bi waaye yàlla ba mu koy wàcce benn yoon la ko wàcce inna anzalnaahu fi leylati leylatil qadr yàlla benn yoon la ko taali wàcce ko ci benn guddi pare wala déet moo tax xam nga loolu ci ci ci ci xam-xam ak tamakul la bokk nga taalif téere ci diiru ñaari fan nga gis ko am taalif na téere benn fan nga gis ko xamante taalif na téere ci diir yàlla moom borom bi tabax muy taalif téere mooy alquran yàllaa ko taalif ku taalif alquran du yàlla téere boobu ne la aziz kitaabu téere la bu jafe pour réaliser ko dafa jafe pour réaliser ko ñaareel ba azizu la fa nekk doo ko fekk feneen parce que mu composé dafa bari moo tax téere bi nga xamante ne moo ëpp njëriñ ci kaw suuf mooy alquran karim waaye itam téere bi ñuy gën a jàng ci kaw suuf mooy alquran karim téere bi nga xamante ne moom la gën a muul tey ji ci kaw suuf mooy mu am beneen téere xam nga dañoo wax ne muul nañ ci million ñu ne téere ba wóor kooku borom xam-xam dañ koy boole ci ñi gën a kawe ci àdduna maanaam ko am ne bind na téere ñu muur ko muulaat ko muulaat ko ba mu mat million dañu wax ne kooku ko mag la ci àdduna bi parce que téere ba mu taalif def nañ lu mat million nusxa million nusxa na téere bu baax bokk na ci téere yi ñu gën a suivre ci àdduna wala dé waaye alquranul karim ñaata lañ ci muur ci ay ay parce que jullit ñi ñaata lañ tey jullit yi tey ñi ci kaw fi ñaata milliard bu mot milliard ñun lii mën nañ milliard yow ñaata kaamil nga kon milliard moo am boo demee ci Cheikh El Hadj Mansour hmm. sax lañ fa bàyyi ci ay seen bibliothèque ñaata kaamil lañ bàyyi maanaam téere bi nga xamante ne moom lañu gën a bind mu gën a egg si ci kaw suuf mooy dëgg la nag téere bu ñu njëkk a muul bu ñu njëkk muul waaw imprimé mooy tawraat tawraat la njëkk a waaye nag alquranul karim niñ ko muulee tey ñi ci ko muul amul te pourtant sonal na ñu bëri de karim ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko jël moo tax mu ne la innahu la kitaabu laam bi laamu lan nekkul laamu taw la kitaabu téere la boo xamante ne aziz dafa jafe pour muul ko pour bind ko maanaam réaliser ko dafa jafe itam la fa nekk nga fekk ko ci beneen téere ci Amadou Bamba radiyallahu taala bañ koy exilé lan la yóbbaale nga ko takkale ak kàddu te mun na ba yërëm yëpp ko teg waaye kàddu moom moom rek moom mooy waxande bi yërëm wala de تيجيني أن تانك جلد يبقى من وراء من لا جوا من لا إكزيل جبل بل بل بل إيف وأحمد من يو كان يافين لكن لم كبو بن ليف لم كبو غير يو بعد من القرآن parce que القرآن ما يتيه بوا خمسة من بس بنه بوا كي جانغ بجوا على بنات معنا شيء أحمد تيجاني نبس بنه كبو كون جانغ جرو من يافكيون يوم بجينا كذا فاكوي بابا يكو يعمل لكن في رأي بيسار بي دل سواد يكو في رواد لو بابا kon pour walla ne li alquran ëmb amul ci beneen téere mooy téere boo xamante ne dana la wax lii waaye maanaa ba mën naa fireeku moo tax mu ne bu ndaw kaanal baax mi daal di kalimaati rabbi dana fi dal baax Ali ibn Abi Talib ne bu ma leen doon firi benn baa siin bi baa bi rek nee na danaa la ci bindal loo xamante ne buñ ko tegoon ci kaw gëlëm mu ko woon kon téere bi est-ce que yomb nekk ku ko mën a dajale ci téere téere boo xamante ne dafa am barke ni tey bëtam di feebar ñu nga ñaanal ko mu ñëw masalan am na benn waa joo xam ne dafa sëlmaxoon gën ci gis yonente bi yonente bi ne ko dee jàng alquran mu ne ko sama bët yi neexu mu géntaat yonente mu ne ko dee jàng alquran mu ne ko sama bët yi moo ko dee koy jàng rek mu xew bi kaamil bi nam ca jotoon a mokkal fatiha bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ak bët yi di leer balaa mu yegg ci moom est-ce que loolu yeneen téere ban ndax dari ban la ndax dari banu ko innahu la kitaabun aziz mooy téere boo xamante ne kenn yàqu ko téere bi téere boo xamante ne kenn yàqu ko kan moo koy yóbbu ko ci kër lañ koy teg ci kaw mën nañ jël fourneau ko xotti ko li koy am euh, li koy boyale waaye alquranul karim aziz ñëpp kenn yàqu vidéo ba nag ndax wér na wala wala wéru yooyu lay gis ci réseaux sociaux yi muus bi nga xam ne moom lañ tegaloon livre bi muy dox ci kaw ñu tegal ko livre alquran bi nga gis ni mu koy jéggi defe naa gis ne ku yab alquran est ce que muus bi yab na ko kenn yabul alquran innahu téere la boo xamante ne la kitaabun asiid yàpp ko wul yàpp ko ñëpp ko fonk mu ne téere boobu laa yaati il baati caaxaan du ko dikkee mi bay ni yadee caaxaan di ko dikkee ci kanamam wala min xalfi wala ci gannaaw maanaa li ko jiitu ci téere mooy tawraat injil ak yooyu ak téere téere yi nga xamante ne ñoom ñoo ko jiitu hmm. est-ce que téere yooyu noonu tolloo nañ ak moom ci day nañuy soppee téere yooyu noonu est mën na koo soppe alquranul ci yokk xaram laa ñii ñëw ci gannaaw wala nga ne laa yaatihi lbaatilu min bayni yadayhi lu mu la wax ci li jiitu lu wér la wala min xalfi lu mu la wax ci li gannaaw lu wér la bi maanaam kenn mënu ko wétti mooy téere boo xamante ne mënoo ko wétti mënu la wax naa leen am na benn waay joo xamante ne japon li tax mu tuub aaya alquran kullama nadida juluduhum baddalnahum juludan ghayraha ba mu jàngee aaya boobu juróom la mu ne parce que ci gëstoom dafa gëstu ba gis leen der bi maanaam bu demee ba yëgg ci yenn niveau yi du yëgati mettit du yëgati mettit mu gis ci alxuraan mu ne saa su demee ba seen der ya ñor mu ne ñu dindi der ya yokk de defaat yeneen der li yazuqul azab mu ne lii Muhammad mënu koo taalif lii du wax Muhammad parce que lii ma gëstu nii man maa ko njëkk a te maa ko dugal ci ay laboratoire ba génnee ci ay résultats ay ati at juróom fukki at may gestu rek kon lii du waxu Muhammad kii waxu ki bind nit la moom la mën a doon ay moom moo ko dugal ci alquran kon alquran ba kan moo ko mën a weddi kenn mënu wax lu mu la wax boo doxee tuuti ñëw fekk ne nam la ko waxee noonu la moo tax laa yaati baatilu min bayni yadayhi lu mu la mas a wax ci li jiitu manoo ko weddi doxale nu firaaw ila axiri manoo ko weddi tey jii nii ba àdduna di tukki loo fi gis boo ñëwee da ñëw fekk ne li mu wax dafa toog rek moo tax gis nga ku ñu tuddee euh, Maurice Bocaille loolu moo taxoon mu tuub hmm. waaw aaye ci gannaaw ñu jàng léegi ci gannaaw mooy duxaan mooy yee moom moo tax mu dugg ci hmm. kon pour wan la ne alquranul karim dafa méngoo moo tax waa ja tuddee ko ne alquran kaw naatiq hmm. mu ne alquran adduna la buy wax kon mom wuté wuutewul ak nga xamné ne moom mooy li gis ci àdd ayaati bat min wala min xam mu ne tanzih ñu ko ko wàccee min xakimin ku xereñ la hamid te baax maanaam ku xereñ la yàlla ku xereñ la mo wacce téré bi hikma rek nga fay rek ben xaraf bu ci ne rek man na defar peuple te loolu benn yéebéer moo ko wax mu ne benn xarafu al kon bàyyiwul dara xakimin ku xereñ moo ko wàccee xamidin te itam koo xamante ne bu baax la ci li nga xamante ne ñoom la ko wàccee bi maanaam téere bi yàlla daf ko wàccee boo ko jàngee mu gërëm la bokkul maanaam yemul rek ci yokk sa xam-xam tey jii nii boo jàngee téere boo xamante ne Cheikh Anta Diop moo ko taalif masala mën nga ci jëlee xam-xam boo jëlee benn livre boo xamante ne ci wàllu wàllu paj lay wax wér gu yaram mën na ci jëlee xam mm-hmm. waaye est-ce que xam yi di dañ ko ca jëlee alquran nag boo koy jàng xam yi duñ la cay jëlee mm-hmm. maanaam kuy jàng alquran yàlla daf lay gërëm Abu Hanifa dafay nettali ni dafa mas gis yàlla gis na ko ay yoon juróom-benn fu ko def mm-hmm. nee na benn benn mu def saa yi su ma ko géntee dinaa ko laaj lan moo gën ci jëf nit di koy def ba nga ko géntee beneen yoon muy mag téeméer mu na ko yow yàlla lan moo gën dinaa nag ku wedd yàlla kenn mën ko gént te loolu mën na nekk lu yàlla bi xam nañ ci tam ba nga xamante ne gis na gis na ko mu ne ko yow yàlla lan moo gën ñu jaam wala mu ne jàng alquran ne ma laaj ko bi fahmin aw bi xayri fahmin mu ne ko bi fahmin aw bi xayri fahmin gis nga booy jàng alquran même bu fekkee ne sax tadabbur bi amul nga di ciy jëlee xam-xam buy yee sa xel ngay jël xereñ ba ca nekk waaye xamidu yàlla ci boppam moom lay xool bëtu yërmande yemu ci boo koy jàng rek de ida quri alquran fastamiu lahu wa ansitu la'allakum turhamun boo toogee di déglu alquran rek yàlla gërëm la kon téere bi ñaar yi la yóbbaale hikma walhamd bi maanaa da nga ci jéem jëlee ca xam-xam waaye même temps boo koy jàng yàlla dina la ca gërëm te ngërmaan yàlla rek la ñu ut ci mbir bu tax borom bi tabaraka wa من يريد أن ينجح القرآن الكريم فإنه يأتي شفيا لصاحبه يوم القيامة من ما يقال لك دون لا wax nak illa ludul ma kat qila lo xamantene ko son nañ ko wax la rusuli ay yonent min qabli kan la jitu bi maana yow muhammad lepp luñ la massa diaboliser wax nañ ko ay yonent diaboliser leen ku la dara bett moo tax boo jàngee gis da ngay xam ci jabar bu ñuy diaboliser bi nga tegu ci li rajo yi wax ak li télé di wax dugg ci erreur waaw gis nga mboolem ñi am idée pour ñëw defar société dañuy jànkuwanteeg kii mboolem ñi nga xamante ne dañu am engagement ñëw bugg a changer seen environnement dañ leen fekk ñu réer ñu bugg def la nga xamante ne moom mooy génnee leen ci réer dugal leen ci xam dañ leen bëgg ci jubati ñu bëgg leen a xëcc ci teg leen ci jub bu lañ tuddee ay révélation mboolem koo xamante ne jog na di def ay révélation dañ koy xeex parce que nit ñi dañ koy comprendre wala ña nekk ca système ba duñu nangu affaire boo wol ñoom maawu ci ne même kii nga xam ne dama la tuddee dégoor mboolem al muslimuuna képp ku jóg pour jafe rek noonu mboolem yonente nag ñoo ci jiitu am na yonente bu ñëw rek ñu ne ah, ko jëm jeex na allo katane ci yonente xam nga mooy kat Seydina Yuusuf Seydina Yuusuf ba moo ci tan moo ñëw woole ñoom ñëpp ñu jëm ko waaye balaa mu fa yegg est-ce mucc na ci biir parce que jël nañ ko dugal ko ci kaso fukki at lan diiru fukki at mu nekk ci tuuma nekk ci biir kaso wala de ba nga xamante ne génn na lan la njëkk a def setal deram ba leen ndaw si mu wax naa nit nag bu fekkee te pourtant boobu seede am na de boobu seede ba wa shahida shahidu min ahliha boobu seede nañ ci kaso ko buggee génne mu ne il nag mu leer maa baalul des nañu woyu ndaw sax mu ñëw toog wax lu leer ndax dama ko def wala def ndaw sa ñam al ana xasaatal xaq ana raawatu an nafsi def ma dara yàlla seetal Yuusuf ba mu set xam nga ndaw si nga xamante ne doon tuumaal nag di akki bi bu toogee rek di wax naan man loolu lu ko defet bala de waaye ci réew nga gis koo xamante ne gis nga ko wax rek wala ñu ne nga <laughs> léegi ñu ne àggañ ah def dafa def la yàlla di ñu yërëm wala de hmm. gis nga loolu ñuy tuddee mboolem yonente yi Seydina Muusa tuumaal ndaw sax moom tuumaal Firawna fan la jaar ak moom lan la wax ndax da di topp kii nga xamante ne gis nga xayru bu bii kii nga xam ne mënul sa wax mu leer la beñ bi baaxul ku mel naka Seydina Isa luñ ko wax kii ki naawul bàyyi doomu lan doomu jàllo lañ ko tudde Seydina Isa ci bopp nga ñëw ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa amul luñ ko wax saaxiru jëlal kat wax nañ ko kazaabu Seydina Muhammad la wax alayhi salaatu wasalaam ak ni mu toll ak caractère ni jàkkaarloo nekk kazaab dafay leen wala di dabi laa di bal wa kazaabun ashir moom ne ko maj nun yonente bi ñu ne dafa dof te li gën a métti ci saaga nit lan la am mu gën a foor ci moom du xel na léegi amul xel dafa dof nit mën na la wax lu nekk dangaa siis dangaa kii laa xëri nga xaw waaye bu la waaye da amoo xel kooku mën a toogu parce que yëgg na ci sobe li nga am mu gën a foor ci yow nga gën koo foog loolu la wax ne amoo ñu jàkkaarloog Seydina Muhammad ne ma juróom sallallahu alayhi wa sallam lu nekk wax nañ ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dem na fépp bugg a histoire moom yonente bi sallallahu alayhi saaga nañ ko lan moo indi islaamu Hamza Abu Jahli wax de saaga ko Abu Jahli saaga yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te bul foog ne gis nga diabolisation bi bi maanaa ci wàllu wax rek la de même physiquement def ci bopp moom yonente bi sallallahu alayhi wa a abu jahlin dafa toog ak benn xale bu jigéen di koy di koy di koy jaloo parce que ñoom xamuñu njaaloo dafa xaram bokk na li gënoon a tax ñuy xeex Seydina Muhammad mun ne def ñuy xañ ñuy neex yi xamoo loo xeexuñu yonente bi parce que dafay leen di woo ñuy julli wala ñu ñu ñu ñuy loolu de mun a def leen di tere yu neex yi abu jahl benn xale bu jigéen bu rafet ñu tuddee woon ko nawaar xale moom la doon jaloo pour man faa ñëw ci guddi pour caaxaan kooku seen yonente bi yonente bi di ñëw rek mu daw mu mer dal di topp ndaw bi ne ko kaay bu mu ñëw mu tee ko ci loxo mu ne ko kii moo tax ngay daw parce que moom dafa rus yonente bi xam nga yonente bi gis na xayba bi yàlla def ci nit saa saay du gis xayba ko wa kadalika jaalnaa li kulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin dafay am fit ci kooku nga xamante ne moom mu ne ko gis nga na war a kii nga respecté nii rus ko nii kaay ma saako ko ci sa kanam nga xam ne kii du tus man du ma moroomam ko bi ci kanam yonente bi saaga yonente bi topp ko di koy saaga yonente bi faale mu ngay def rek hmm. mu ko di koy puus yonente bi mu ne ko gis nga kii ñemewu ma sax maa ko man ba bu ko wanee góoraa bay hmm. xale bu jigéen ba ba mu riccee dem di ñibbi rek dajeeg xam na ne ko yaa xam nga mu ne ko naam mun na ko abu jaxlin mu ngi leen topp sa rakk ji rek wala sa doom ji mu ngi koy saaga saaga yu metti te xam nga comme yonente bi dafa bëri kersa du xeex est-ce que xam nga yonente xeex xeex abu jaxlin hmm? na koo dóor sa lay hmm. bi la awlaa la ka fa awla ay yaxsabul insaanu an yutraka mu defee nii dina ko dóor parce que mu ngi ko topp rek di wax rek mu mel ni yonente bi ñemewu ko hmm. loolu la gis dafa gis yonente bi ñemewu mu di koy sànq yonte bu féewu mu di koy violente yonte bi ne teg comme lii daal ñenn ñi rek topp nañ ci di koy sànq ne ñemewu foofu la ko xam la sekk nag dóor ko xeejoom boobu noonu ne ko aja saagaar ko mu ne ko ñoo Abu Sufyaan ne ko waaw xanaa yow lu tax ngay défendre yonente mu ne xanaa xamula ci diinam dinaa bokk te mu ne xamoon naa ne yàlla kenn mënu ko kenn kenn mënu ko dajale ci benn xeer bu ma duggee ci àll bi di xool bitti bi di xool asamaan bi xool àll bi rab yaa fa nekk ma gis ngelaw bi di muy demee li ay xeret mënu koo doxal ma xam ne yàlla ëpp na lii ñuy jaamu fii ci kaaba ci ca gannaaw ba nag ci la rasulillahi sala alma wàcc ci moom ne ay xasabul insaan ay yutraka sudan ne yow Muhammad yàllaay wax yonte bi ne Abu Jahl boobu ko bàyyi noonu kese parce que daf lay yàq ayaxsabul insaanu an yutraka alam yakun nutfatan xanaa doon nit rek. maanaam bu ko xanaa doon bu ko bàyyi noonu jëflante ko bu duma yonente bi ba aaya ba wàccee Jibril wàcce ci ci Abu Jahl ñoo ñoom ñaar ko ba ci kaw ba ci suuf mu sànni ko ba mu daanoon ci la kii xam ne ni ko yëkkati ak li ko sotti <laughs> mu ne ko xanaa di waa bëgg a rey yow Muhammad léegi nag mu dem uti nag ay dagam ñu koy garde pour saa yi su dajeeg yonente bi rek <laughs> mu boole koog dagam yooyu noonu ñu dóor yonente bi sallallahu alayhi wa mooy ner bii boobu <laughs> alquran mu ne fa li yadoo naa di na ay garde corps sanadoo zabaniyata man dinaa woo samay malaayka kallaa mu mujj wax nag laa tuuti aw bu ko bu ko topp sa ci xeet waaw yow Muhammad bàyyi ko mm-hmm. was bi ko demal julli ñi gën bàyyi ko fi foofu la yéen ñu bàyyi histoire waaye mos naa ñoo xamante ne wax ne koy wax naan ne bàyyi naa la yàlla fa ngay jëm moo soriwul mm-hmm. bi mu ngi màkk parewul genn màkk Abu Jahl bu ñëw ak parewul genn màkk ñoom ñaar ñëpp makk lañ dëkk fu Abu Jahlin gisoo yonente bi dina ko sànni baat bu ñaaw dina ko fi yolante waaye keroog ba ko yonente bi xëccee ba sànni ko keroog la ko gija laalante fi nekk nag dina ko saaga dina ko saaga waaye ñemetu ko ñemetu ko la moo tax yàlla ne ko was jub waxtari demal nga julli te gis nga ko bàyyi leen kon pour woon na ne rasulillahi sallallahu alayhi wa jànq jànkuwante nag am loolu yëpp ci digg Makkatal Mukarram maa yuqaalu la illaa maa qad qiila li rusuli min qabl boo demee ci taarix dañ lay nettali Walid ibnu Mughira bokkoon ci yéefar yu mag ñi nekkoon ci makkatal mukarram ba ñu demee ba aj ba jubal dafa woo waa makka kilifa yépp ne aj gaa ngi ñëw te mbiru Muhammad ñépp commencé nañ koo dégg te xam ngeen ne saa yi suñu ñëwee danañ ko dégg te danañ gëstu te danañ ñu laaj ñu mbokk yi il faut nag ñu déggoo ci benn kàddu

ñu ne ko kon ñun balaa ñuy wax yow wax ñu yow lan mooy sa xalaat comme yàlla def de yow nga doon ku ñor ñun loolu la ñu tuddee te moom la yàlla wu mujj di saboté gis nga ko wala tuddee kulla hallaafin mahiin hammaazin mashaaa'in binamiim mannaahin lil xayri mu'tadin asiim utulin ba'da zaalika moo tax yàlla bul kenn kuloom moom xoolal yi ko yàlla teglanteel defen mooy li seen naa li woo boo ko waaj a saaga mu ne bu ma neexee ma saaga la te du ma fen xam nga li gën a bari ci saaga ay fen yàlla nag saaga naa ko te fen kulla xalaafin mahin tekkiwul dara di jabaram yi respecté wuñ ko gars yi xamuñ ko xamuñoo ne jabaram yi respecté wuñ ko xammaadin mashaain bi namiimin rambaaj rek lay def mooy ñaar ñu yàqoo fii moom la mooy wax fii di toxal fen dañuy dégg benn wax fan la jóge kan moo ko wax kan moo la ko nettali kenn du xam kan ñu ne teg nag gis nga ku mu ne zani bi ki ñu tuddee ne bàyyam moom bàyyam bu ñu koy tuddee bàyyam kooku juru ko te gars yi xamuñ ko moo tax ñu ne bul saaga akul amat bul saaga akul amat parce que booy xuloo akul amat dana la wax sa gis nga ko mu ngi loolu nag wala déet ni ko olof di waaye sax jonga la xaw ma loolu lañ koy faral di wax kon pour wóol na ne yàlla kenn du ko loolu ba ñu dajee wax ko loolu mu ne leen ñu ne ko yaay suñu borom xel mi kon jox ñu xalaat mu ne déedéet da ngeen di wax ba analyser bu ko defee bu dee ne jub na ñu jël boobu ñu ne kon nañ wax ne fenkat ne mu tuddati fenkat la mu ne yàlla gën a xam ne bu fenkat fenkat boo jàkkaarloo moom ci xar kanam rek ay botam nga xam ne kii defee te xam ngeen ne mu am bii du fenkat kon bu ngeen waxee ne fenkat la gars yi bu ñëwee ba jàkkaarloo ay botam jàkkaarloo ba gis ko danga xam ne kii du mel kon jël leen beneen mu ne kon nañ wax ne maj muun mu ne maj muun kii a wér kii du dox ni muy sol ni muy doxe ni muy waxe nga ne kii dox <laughs> danañ xam ne kii du dox parce que dof dafa neex a découvrir bu ngay toogee bi ñaari waxtu ñett dof léegi tey mu fay mm-hmm. yàggul mm-hmm. ah, ndof mm-hmm. yàggul de ba tax mu ne kii bu leen wax ne dof la parce que boobaa bu ñu réussir ci mbir mu ne ah kon nañu wax ne kaahin maanaam dafa doon koo xamante ne gis na ko ah bu waaba la mu ne ñun nag xam nañu kahaana kuhaana wa zamzamata xam nañu kii buhaaba ak ni muy defee buhaaba te xam nañ ne Muhammad bii boo jàkkaarloo nga xam ne kii du buhaaba kon naan seet mu ne kon nañu wax ne njëbërkat la mu ne leen njëbërkat xam ngeen Muhammad du njëbërkat wala de mu ngi nii di dund ak ñun njëbërkat yi li ñuy def yëpp defu ko njëbërkat yi li ñu mel ci salte ak tilim ak sobe yooyu yëpp nekkul ci moom kon kii du njëbërkat ñu ne ah kon de di de jeexal mu ne waaye dañ jël njëbërkat nag boobu baax na nañ boobu parce que njëbërkat dafay jaxase diggante baay ab doom jaxase diggante jëkkër ak jabar te Muhammad alquranam bii nii dafay tax yow doo déggoo teg sa baay doo déggoo kon wax boobu boobu ñu daa d'accord ne Mouhamad Zahir kon diabolisation ba est-ce que tooguñu nas ko préparé ko ne nañ ko tuddee ni mu ne yow Mouhamad nag na la manti wax te loolu dafa metti ci ni bu baax a baax a baax dafa di lay wax loo xam ne dañu nekkul ci amul dara gën koo metti loolu nag yonente bi ko doon jànkuwante yàlla ne ko lépp lu la mas a wax waxoon nañ ko ay yonente Moussa dal na ko alayhi waxuñu ne dafa dafa xuuxaat Seydina Muusa loolu lañ ko tudde kalladina aadaw Muusa min qablu fa barra'ahu Allaahu mimmaa kaanu dem ba Seydina Muusa ndikite buy dox di romb ñu ne dafa xuuxaat ñëpp di koy xoolee loolu jabalu gaa feebu ngeen naa métti moo tax mu ne ko maa yuqaalu laka duñ la wax illa lu dul maakat kii la loo xamante ne mat nañ koo wax li ak yonente bi kablika bi la jiitu lépp luñ ko mas a wax mas a wax luñ leen mas a wax yow Mouhamad préparé nga xam ne dina la mas a moo tax war dina ko te yemul woon rek ci li ma la wax ni mooy kat naa Mouhamad taxaw na di julli yéeféeru Makka yi gis ko muy julli ñoo mu kii ñu waxtaan waaw waa ji nuñ koy def nii lañ koy bàyyi rek hmm. ñu daldi dem jël ay li ñuy tuddee gëlëm gëlëm gëlëm gëlëm gëlëm bu ñu reen doon bàkk ba mu nëb noonu mu am ku ko dem tibb rek ñëw rek fekk yente fi mu suñu def mu sotti ko di xool xam nga nit ñun mën na la wax yenn wala mu def la yenn yi nga moom ci kanamu ñëpp nag toroxtaan gën koo ci digg kaaba ja ci digg sotti ko kaw yonente bi yonente bi li mu bañee xel bu makka yonent bi ni mu bañee sobe hmm. nit ku am dignité mu bañee ku ko tuuti hmm. moo tax yonent bi ne bul nangu ñu di lay toroxal hmm. yonent mu nangu nit di lay toroxal gis nga ku la bugg toroxal da ngay riposter ci kanam résiste du ma ko nangu loolu ci jullitee la bokk bokkul ci ngëm nit di lay toroxal nga nangu toroxal yonent bi nee ne laa yuzillul muslimu nafsahu jullit bu nangu ñu di koy toroxal muy seetaan lu mu de lu mu mën na ko def ci bañ defa mu yem mu yem fa li mooy julli boo ko bëggee def ci kër nag ñu ne da ngaa bëri problème te bu daa du problème yow la ñuy teg loo xamante ne toroxtaan bi la ay bañ ko defee yanti bi sallallahu alayhi wa sallam mu sujud continué yóbbul de yéeféeru Makka yi di xakkataay ñii di génne seen kër yi ñu di leen koy nettali ñuy ñëw ñëw toog wokk di koy xakkataay di koy reetaan moom rasul saxaaba yi kenn ñemewul ñëw ñoom Abdoulaye ñëw pour dindi ko parce que foofu boo ko dindee rek am problème ak ponkal yéefar yi taxaw mu dem wax ko Fatima mm. moo ñëw génnee jël yi génne ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa a jox sallallahu alayhi wa sallam taxaw di koy xool di koy reetaan dara gën naa métti bi sallallahu alayhi wa sallam tàllal jàkkaarloo asama ne yow yàlla aleyka bi abi fulaan bi abi fulaan aleyka bi abi tudd seen tur yi waaye gis nga yonente ba muy tudd tur ya ak bareetaan ba dañ ci yeex benn parce que naan ñaan ba dafa dal Abdullah ibn Mas'ud mu ne ña yonente bi tuddoon keroog keroog Badar ñoom ñëpp gis naa la ñu tëral leen ñuy rey leen sallallahu alayhi wa kon pour wol na ne mas a mas a mas teg yonente teg nañ ko ay yonente yi jiitu en tant que tey jii nag nga nekk koo xamante ne da ngay defar muslim ci Amadou Bamba luñ ko fi wax dañ ko jàppalee def ci réew mm. lu ñu wax ko ci kaw fii ci réew bi bi jël ko yóbbu turam rafetul woon fii ba yenn murit yi tey ngay gis Baye Fall buy taxawaalu di di di sikkat di ñaan di yelwaan waaye cay jamono Baye Fall yi ñemuñ ko mm. am na dëkk bu ñoom buñ fa yëgee ñu dàqee leen sëriñ Tuubaa lañ kott bari na ci réew ba tax ba mu ñëwee gis nga ko benn góoru yàlla mu dajeeg moom di ko da nga ah, jërëjëf ñaan yéeg na mu ne ko doom yaa baax rek doom yow yaa baax waaye ñun ñëpp amu ci kenn koo xamante ne buggoon na nga del si waat te kooku nitu yàlla borom xam-xam la ñu koy wax wala de kon pour wol la ne la dal yonent bi mën naa dal boole muslim Mamadou Dia dalu ko lu ñaaw lu nekk ñu wax ko ci kawam ba tey jii nii ñu ko boo demee ci yeneen réew yi bi àdduna jeex képp koo xamante ne fekk nga rek mu doon muslim bugg a defar il faut mu yàq dara léegi nag ñi nga xamante ne ñoom seen xel ñorul ñoom la ñuy manipuler ñoom la ñuy manipuler Abu Jahl lu tax ñu tuddee kon Abul Hakam foog ne dafa ñëw lañ doon wax parce xalaat yu ñaaw yi doon nàpp di koy teg ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la amoon ñoom baaxaat ñoom yëpp di jël ay kàddu yu ñaaw di koy wax ci Cheikh Amadou Bamba di yàq yow boo ko déggee doo ko mën a fekk moo tax il faut nga ñor pour buñ la buñ saa soo xamante ne nag yaa ngi xam di xàmmee jàng histoire xam li nekk ci gannaaw mbir ya bu boobaa doo nee xamante ne waaye su fekkee ne nag ci jamono comme yenoo ci technologie pour manipuler dafa yomb waaye il faut nga ñor. tax borom bi tabaraka wa taala ne maa yuqaalu laka duñ la wax illa lu dul maa qad qiila loo xamante ne mas nañ koo wax li rusuli ay yonente min qablika amul luñ ci rus alaaji ibrahima ñas bi ñu di koy raam pourtant lu ñaaw lu nekk wax nañ ko wala dé waaw alaaji amul dem naka noonu maa ngi fàttali ko góor bu baax bi cheikh al islam alaaji maman suñu góor bu baax gi nga xamante ne mënoo mënoo mënoo mënoo tey dara lu dul lu rafet ñëpp lu baax lañ ko xam benn bés mu am ku yegg si benn gan bu ma àndal yegg si ba yegg see mu ñu góor mu ne ah yàgg naa sa tur góor xam la ko ko li nga dégg rafet na pourtant bu baax gi am na ñu wax la xam ngeen wax ngeen dégg ngeen yéen ni koo xamante ne dana ci kaw deru alaaji Papa Antou di wax ci moom lu ñaaw am na bu baax c'est pourtant mu ngi dund ci suñu biir képp ku ko xam mënoo seede ci moom loolu waaye pourtant am nañ koy wax àdduna ba ko soxla tey tey voilà mënul voilà daf lay jaral sa bakkan voilà hmm. loolu daf lay jaral sa bakkan en tant que taalibe nag wala de waaye ah, yàlla yàlla dëgër kon pour wóolu la ne gis nga kaddu gu ñaaw hmm. kaddu gu ñaaw saasaay bi mën na koo yëkkati teg ko ci kaw ki gën a baax ci kaw suuf hmm. parce que Seydina Muhammad moo gën a baax la muy baax baax baax tey jii nii ban yonente la ñuy gën a attaqué ci kaw suuf du Seydina Muhammad hmm. fan yëpp daal déggu leen xarul Quran ñu doon la taal alquran bu karim dégg ngeen ko koy ci Danemark fii ci Europe ci Suède yenn ay camion ñoo taxaw rek di làkk am na ci kaw dafa doon làkk kii bi dafa far làkkaale ma wala de léegi yàggul avant weeru koor bi nii rek mu neex la rek nga dem jël camion rek pour nakkaral julli ji rek doo jël tawraat doo jël injil nga taal am ñoo xamante ne spécial dañuy woote bés ne bés sàngam ñëpp na ñëw pour ñu làkk camion ñëw gën a ci liggéey jël camion yi teg ku ñëw taal ku ñëw taal pour mais sëñ bi dafa mel ni français yi kenn gënu leen ci mboolu ci diine. parce que da gis ci irandiens yi euh, championnat yi am Europe. Mm-hmm. may nañu jullit nekkee ci terrain bi. Mm-hmm. bu heure doog jotee. mu dem doog ngay may doog mu des France. France ñu ko bañ. loolu bi maanaam lépp lu jëm ci wàllu lislaam mënuñ koo toléré lu indi charia mm-hmm. charia lu koy. ba ñun sax mën nañu attaqué français yi ñoom ñoom kii boobu jamono yi kii moo nekkoon président bi François Hollande mën nañ ko attaqué en tant que comme yéefee waaye julli ja dem nag accompagné ko àndal <laughs> suñu poste bi ci la ko ñu mm. dem de foofu gaa yoo xamante ne dañu jël yonente bi deseñe ko saboté ko mm. Seydina ma indil nañu loo xamante ne mënuñ mënuñ indi lu ko upp mm. mënul ne ñi màndu ci ñoom ñi màndu ci ñoom xam nañu ne lii lu wér la loolu ñoom ci seen bopp ñoo koy seede ñoom may kalxar xam ak ne alquran bii li yonente bi indi amul góor bu ko mas indi ci kaw suuf waaye comme yonente bi nag dañ koy diaboliser ba tey jii li tasdiq li hadil kalima pour dëggal kat aaya alquran bi rek ñu jël yonente bi depuis ñaata at la gaay depuis ñaata at junne at ak lu teg ñu jël ko dese ñu ko jël biir bi ponkal hmm. jël leexi reyal gis nga hmm. mu doon nittu shahwaat yi xale yu jigéen ñi wër ko muy naan yu kenn xamul pour diaboliser ko hmm. ba loolu génnee mu am ñu jóg ne lii duñ ko nangu ay xale yu góor ca France te lu tax ñuy saaga seen yonent attaqué fa nga xamante ne foofu la foofu lañ defee kii mooy mooy journal ba am ñancere commando France yi ñoo wër leen ñu ne du ñu jeexee seen bopp dañu rey leen ca kenn ko sax Omar la tudd ay jàmbaaru yàlla ay jàmbaar lañ parce que dañ xool ne ñii ñu ngi saaga yonente bi ñu avertir leen ñoom ñu ne danañ ko génne ne liberté ñu ne ñun suñu ni suñu ngëm-ngëm la bu ngeen bëggee démocratie ñun du ñu wax lu leen lu leen naqari ci seen diina kon yéen tam bu leen ñu wax lu ñu naqari ci suñu diina benn président ci européen balaa Vladimir Poutine bu mm-hmm. Russie moom kenn moo taxaw contre loolu ne mm-hmm. France amul droit boobu sa ngëm-ngëm la taxul nga attaqué ngëm-ngëm bu keneen mm-hmm. foofu la ko nit gis parce que au moins taxaw na jàkkaarloog France ne leen lii du yoon lu tax ñuy saaga julli ñi ci seen ngëm-ngëm te am na benn journaliste bu ko waxoon seen benn course ba mu wax ne dañuy taal alxuraan mu ne ko il foog nga respecter nit parce que ay millions millions nit yow lii nga gëmul am na ñu ko gëm comme yow gëm nga lee moom kenn lee la gëm yow bàyyi ko ak li mu gëm nga respecté ko lii du démocrate Macron moom ko defee fii te dafa dem porte plainte mu ne loolu waruñ koo def Macron bi tekki Macron bi tekkiwul dara ci kanamu yonente mu ne bu ko kenn defee bu ko kenn saboté buñ ko karikete léegi Seydina Mouhamad munqidul bashariya ki tax yàlla bind lépp jox ko mu liggéey ci kaw suuf lu kenn mante liggéey ba àdduna di tukki mm. ñu ne kooku nag war nañ koo karikate xale yu góor yooyu noonu jox dem attaqué am ñu njëriñ commando fanaan loolu bañ ko yëgee ñëw wor leen ne nañ joxe seen bopp ñu yóbbu leen kasu àtte yi laax ñoom ñu ne bokk duñ ko def xanaa seen bakkan ñuy xeex ak ñoom ba ñu rey leen ci digg France bi mm. ay suhadaa lañ ay nit ñu naw ñu ñu war a naw lañ mm. François Hollande déclaré xaw dañ nañ ko déclaré adduna bi yëpp woote suñu président jógee fii ñu di koy fay doon ay jullit mu dem ànd ak moom lonk ak moom ne je suis Charlie li Charlie def d'accord naa man d'accord man de d'accord président bi nag dem na ba foofu ànd ak ñu ci ñun ñoo ko fi fal ñoo ko fi fal est-ce que président ci ñun ndax ci ñun la suwal hakada te pourtant jullit ñi ñoo war a am fayda ba kenn du ñemeeti sabooti yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fayda boobu ñu ñoo ko war a am waruñ ko nangu waruñ ko may kenn waaye keroog mooy compte président jullit ya fa daje kenn xamul ni ñu toog ñëw ànd ak France di woote wu nit man maay Charles noonu lañ ko tuddee. je suis Charles man maay Charles. maanaa Charles li mu saaga yonent bi d'accord naa ci kon pour woon tamit rasulillahi su yonent yi Seydina Moussa ku koy caricature tey Seydina Insa ku koy caricature moo lay woon ne fi yonent bi di xetal foofu leen <laughs> moo tax ñu fipp parce que yonent bi moo leen jaaxal benn yonent tey ji ci kaw su mooy koo xamante ne ndax ba loolu xewee France fu nekk ci àdduna bi mënta jaay yi nga xam ne moom lay joxe du jënd ci laaxira tuuti mu daane économie faram. Mm-hmm. wala de loolu ban yonente moo ko jaralati ña ko topp catholique yi Isa jaralu leen ko Muusa jaralu ko yahudi waaye ñun jullit ñi nag ñu ñëwee ki nga xamante ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loo ko laal loo ko laal moo indoon sa illa rasulallah ngay def ci ay kii yu bëri bëri ay ay. jikko yu bëree bëri bëri bëri ca Amérique dafa am benn waa xam ne pourtant dafay naan sangar waaye jullit la de hmm. dafay ko rek mu dem naan ci affaire hmm. gis xale bu jigéen boo xam ne ay aaya alquran def ko hmm. ko ci yaram bi ba mu jeex def yaramu neen nag loolu waaja ba ko gisee dafa jël butéel toj ko rek acc song ko noonu la ko ree day ñëw jël ko yóbbu ko ci kaso xam nga Amérique moom kuréel yi dañ lay rey hmm. ñu ñëw fekk ko xelam mu nga dal ne eh, man nag hmm. aw ma dara lu ma yaakaar mu dugal ma àjjana lu dul lii hmm. keese tey ñu xam nga ku dem ba yegg foofu ci mentalité kooku nga xeexoon du yomb lii moo tax nit ñi wala Seydina Muhammad jaaxal tubaab yi loolu moo tax fu ñu nekk rek da koy attaqué ba tey ne heure من نبي النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس يدق أي أحد يدق أي كاريكاتير دي وقت يوم الدنيا دفت يوم فيلم فيلم الفتنة كده فون فيلم جاهد يدا جمو تاني ترى وجه يوتيوب يوم يبت سبوت يلا تبي صلى الله عليه وسلم دوكو تبي دفع إيش دوكو تبي دفع يلا يلا تي تي يلا تبي فيلم كون مولا يوون لين يوون تبي ليك مو فيلم بريزا تي mom moy mom moy sonal yi nga xamanteni ñam ñokoy attaqué ay julli ta ñoo ci am fayda nak war am ñam bu ñu démé be di ànd ak tubaab yi ci loolu léegi foofu résistance dañ leen war a wàcce jaadu nañu résister wala leen war a wàcce dañ leen war a wàcce ah? te léegoo léegi ñuy wax naan nañ xaar bi élection léegoo léegi yenn kii duñ xaar ba élection nañ ko wàccee tubaab yi yenn saa yi duñu xaar ba élection yenn boo ko bëggee def dañ lay wàccee boo bëggee def yenn waaye boo ñëwee góor kii bi bant yi ndax bi dee constitution bi indi laïcité ci réew moom la ñuy di moo ñu sonal moo ñu sonal ndax ku ci ñëw foofu ngay tegu fekk loola dañu nag ku fi ñëwati foofu ngay def mooy kafaru bi fikkin bi rek li mu wax ni mooy laïcité bi moo ñu sonal ci réew mi fii ndax mënuloo ñëw ma bëgg nekk président en tant que ku yàgg daal en tant que ku xam ne diiram lay dund. est-ce que dañ bind ci ci constitution bu Sénégal. boo mënta lire français doo nekk président. ah. lii mooy suñu kon la yàlla wax kafaru bi zikri lamma jaaw ñun ñu koy dund purement durement. Mm-hmm. ci suñu réew mi fii akam kon maa yuqaalu lakka ci gàttal rek mm-hmm. maa yuqaalu lakka duñ la wax diaboliser la illaa lu dul maa loo xamante ne kat kii la wax nañ ko ne rusuli ay yonente min qablika li leen jiitu gis nga li ñu xam ki ñu gën a bay mm-hmm. nit ku jub ci yoon doo que nit ñi bëgguñu jub walaw ittabaal ñoo jub ñu tegu ci yoon ci jubóom ñoom ñoom mel noonu imaam fi dafa wax mu ne gis nga nit ñi nga nax leen ba jëriñoo leen moo gën nga nax leen pour ñoo pour société Muhammad kul la asalukum alayhi ajran uniquement mu ne ñëw naa pour defar leen jàngal leen yu àllimahumul kitaaba wal hikmata wa yuzakkiihim te laajuma leen dus ñu ko du fi te pour pourtant keneen ay jóg nag di leen di leen di nax ñoom ñoo ànd ak ko mm-hmm. même ci suñu réew fii nii dañuy gis koo xamante ne dafay ñëw ne dafa bëgg a nekk député wala dafa bëgg a nekk maire wala dafa bëgg a nekk président def naa yooyu lañ fiy voté waaw mm-hmm. ah, yooyu lañ fiy voté ñetti élection moo fi am mooy benn pour nekk président wala pour nekk député maire wala pour doon député ñett yooyu moo fi am mm-hmm. wala xamu leen ñett yooyu lu dul loolu ndombal tànk la yi dañ leen di fal directeur leen di fal waaye yii mooy yi nga xamante ne bokkul bi ñoo leen boo ñëwee nag di leen di nax nekk yow la ñuy gën a koo xamante ne dangaa ñëw nekk technocrate damaa ñëw pour jël teg ko ci kaw yoon mm-hmm. yow moom dañu wax ne manoo dem il faut nga naxante Sénégal baat boobu la ñu mooy il faut ngay naxante te naxante moo ñu gaañ moo tax ñu tardé ñu ne il faut ñuy naxante lii moo tax duñ mën a def góom bi il faut nga xolli ko defar ko ba mu baax waaye boo bëggee naxanteeg moom du jàll mm-hmm. ñun nag dañuy yegg foo xamante ne il faut ñu génn ci ay aada naxante pour suñu réew mën a baax wala suñu dëkk yi mën a baax suñu diina ji ñu man ko fekk mm-hmm. mu ne inna rabbaka gis nga sa borom mm-hmm. la su maxfirati dafa bëri njëggal rek xoolal ku saaga yonente dawal buur maanaam police mbéj ko boo mbéjee police ñu dugal la kaso police kenn du ko dóor ndawal buur kenn du ko dóor tey jii nii boo amoon na problème benn ministre amuloo droit ñëw convoqué bu mu ñëw ci tribunal lu dul le président bi moo amee moo moo joxe autorisation kon ndawal buur kenn du ko laal yàlla nag am fi ndawam mooy yonente yi ñu di leen di saag di leen di rey ndax yonent yi ñu rey yàlla di seetaan moo tax mu ne inna rabbaka yàlla lazu maxfirat ku bëri keroog ba nga xamante ne gars yi door nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba bëñam bi dàmm lan la wax mu ne waaw ñii nga xamante ne ñoo jël seen yonente tuur deretam ñooñu fan la yàlla di jëm ak ñoom hmm. waaye mujj wax ba mu wolbatiku ne allahumma yaxfir li qawmi fa innahum laa ya'lamuun hmm. kon en tant que buur bëggul ku laal ndawam moo tax police di lay door doo ñemee fayeeku mhm. da ngay gis ne yaa ko man waaye doo ñemee fayeeku mhm. parce que boo fayeekoo rek leneen na ciy góobee mooy dañ lay ku door police dañ lay dugal kas nga dem fanaan mhm. gardaa bi lañ lay defal te pourtant ab yonente moom la ñuy saaga dóor ko te yàlla du def dara rey nañu ay yonente te yàlla deful dara moo tax ma ne na inna rabbaka yàlla la su magfiratin ku bëri njëggal la waaye nag wa zoo iqaabi dafa doon koo xamante ne itam dafa ame mbugal alimi mbugal bu taratar yàlla yàlla mos a kii bi daal sadaqallaahu al-aziim allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala